alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ñi ngi nuyu mbokki internet bi yépp ñi ngi ziyaara mbokki jullit yépp ñi ngi ndokkeel eh, di amaat mbégte bu baax ci dellusiwaat bi nga xam ne dellusiwaat nañ ko fii ci kër Cheikh Omar Diop di amaat mbégte ci toog ak moom saa su ne ndax xam-xam macha allah bu réew bi nga xam ne mu ngi ñu koy baaxee saa su ne di boroom xam-xam boo xam ne saa su ne rek ñu fàttali leen ne kenn laajteetut ko ndax xam-xamam ak yaatoom ak mbëggeelam ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yitteem ci taxawal gi nga xam ne mu ngi ko bëgg a mu ngi koy taxawal lislaam ak fàttali gi nga xam ne mu ngi koy fàttaliwaat nit ñi lislaam ak lislaam bi nga xam ne moom la war a jàpp tey nag ñu ñëw parce que yéene waxtaan ak moom ci li jëm ci wàllu lislaam ak doxalinu lislaam ñi gis na tey lislaam soril nañ ko soriwaay goo xam ne nii euh, jaaxal na ñépp ba dem na ba ragal nañ ci ñun ñépp ne lislaam dafa mel ni lu tumuranke tumurankewul tey ñi di la laaj tey lislaam gu nga xam ne soril nañ ko jaam yi soril nañ ko doomi lislaam yi tey boo ñu ko doon définiral maanaam boo ñu ko doon leeralal xëccalaatal naka nga ñu koy xëccalaatale ba mu jegewaat doomu lislaam bañ amaat mbégte amaat cofeel gu raw ga ñu amoon ga mag ñi amoon bañ ñu leen di fàttaliku naka nga ñuy defalee loolu ci lislaam ba nga xam ne ku jàng ak ku jàngut daneen bokk yem képp ci lislaam ba ki jàng dootu xeeb ki jàngut ku jàngut tamit dana mën a pratiquer l'islam ba du soxla ku jàng ku jàng loolu lañ bëggoon tey nga laaxee ñu ci biir nga dimbalee ñu ko dimbalee ko doomi lislaam yi gannaaw bañ la nuyoo di la ziyaara di jot jottali ziyaara mbokki jullit yépp nga xam ne ñu ngi toog di ñuy seetaan salaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah sëriñ bi alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim hmm. يا أيما تسيقي اهدنا بهذا المهدر والتحت فيه بنصر تاتلنا بسفر ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki internet yépp maa ngi leen di nuyu di leen ziara di amaat mbégte di bokkaat ak yéen jotaay bii nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu lislaam ak ni ñu koy pratiquer ak ni ñuy ànd moom ci lépp luñ nekk euh, di sant yàlla di nuyu mbooleem xalifa général yi nga xam ne ñu fi nekk kilifa diine yi ak kilifa aada yi nekk ci réew mi ak bitim réew mm-hmm. di nuyu mboolem njabootu Sénégal nekk ci réew mi ak ñu nekk bitim réew mm-hmm. di góor ci jigéen ci mag di ndaw alhamdulilah Cheikh Fadal li nga laaj ci lislaam am na solo mm-hmm. tumuraankiloo nañ ko ay doomam ñoo ko njëkk tumuraankiloo hmm. dëgg la li nga wax dëgg la hmm. ay doomam ñooy jàngalante dafa sori hmm. noonu lislaam yi jël nañ doomi lislaam tàggat leen ci niñ bëggee jàngal jàngal leen liñ bëgg ñu jàngale li ñuy jàngale balaa ñuy wax lislaam dañuy jàngale yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi bi nga xam ne moo indi lislaam ba tax lislaam soriñu hmm. ndax yonent bi ñuy jàngal yonent boobu amul hmm. waaw yonent bi alxuraan jàngale hmm. yonent boobu mooy yonent bi am yonent boobu yàlla moo ko bind yàlla moo ko yónni yàlla moo ko protéger yàlla moo ko may yàlla moo ko tànn yonent bi nga xam ne ñun euh, moom lañ ñuy jàngal ci li ñi gën a bari ci jàngalekat yi kooku yonent boobu iblis moo ko bind iblis moo ko créé hmm. waaw yonent bi nga xam ne moom lañuy ñu alxuraan jàngal hmm. kooku dañuy julli ci moom julli bu bari ndax yàlla dafa bëgg ñuy julli ci hmm. bi nga xam ne moom la ñu jàngal kooku dañ koy fàttaliku yonent bi nga xam ne moom la ñuy alxuraan jàngal dañ koy tagg yonent bi nga xam ne moom la ñuy jàngal dañ koy woy yonent bi nga xam ne moom la alxuraan jàngal. Hmm. dañ koy bëgg. yonent bi ñu alxuraan jàngal dañuy feeñal suñ dañuy war a feeñal mbëggeel gi. Hmm. ci mbindeef yi ñu gis ko ndax ñu bëgg ko. yonent bi ñu alxuraan jàngal. Hmm. du dee. kooku dafay dafay nekk daa iman du dee yonent bi ñu alxuraan jàngal. du dee dafay nekk. yonent bi ñu alxuraan jàngal. soriwuñu dafa ànd ak ñun ci fu ñu nekk. yonent boobu la ay yàlla yónnee. yonent bi nga xam ne mu ngi nekk ak ñun. woo maakum ay na maa kuntum hmm. eh, yonent bi nga xam ne wax la moo anna fiikum rasulullahi hmm. eh, yonent boobu la ñu yàlla jox ñun yonent bi ñu yàlla jox hmm. mooy yonent bi nga xam ne eh, foo nekk mu ngi ànd yow yonent bi ñu yàlla yónnee mooy bi nga xam ne sa yëg-yëgi xol bu jëm ci yàlla connexion bi kooku moo ko yore kooku moom lañu ñu Alxuraan jàngal waaye yonent bi nga xam ne nag iblis moo ñu ko jox yonent bi balaa may yóbbu ci bi ñu iblis jox. waaw dama lay wax yonent bi ñu alxuraan jàngal am barke kooku. yonent bi ñuy alxuraan jàngal. waaw bi ñu yàlla yónnee. waaw alxuraan jox ñu ko. Hmm. kooku dafa am barke. tigi kooku du miskin. Hmm. waaw kooku dafa riche. kooku dafa rafet. Hmm. kooku dafa baax. kooku dafa taaru. kooku dafa tabe. waaw kooku dafa am barke. kooku dafa mën a yare. kooku dafa yaatu woon yaa ngi dégg mm-hmm. kooku risalatu gi mu ci loxoom ba tey mosu koo rëcc l'islam bi mu ci loxoom ba tey mosu koo dénk kenn waaw dégg nga mm-hmm. yonentu boobu alxuraan jàngal ñu mm-hmm. yonentu boobu mooy jëmmi yërmande yàlla yonentu boobu moo melal yàlla ci mbindeef yi bañ man bañ mën koo xam yonentu boobu moo xamle yàlla yonentu boobu moom mooy ki nga ki yonentu bi ñu alxuraan jox indil ñu ko te yàlla yónnee ñu ko yonentu boobu xetam mosu fee jóg te ñu ngi jëkkaat ñu ngi toogaaleeg moom mhm. waxtu wu nekk yonentu bi ñu alxuraan jàngal yonentu boobu mhm. fu waay mën a nekk ci àddina bi ci alamu dunia mhm. yaa ngi nekk ak moom sallallahu alayhi wa sallam yonentu boobu la ñu alxuraan yónni jox yàlla moom la ñu yónnee ndax moom yonentu boobu moom mooy ki nga xam ne moo représenté yàlla sur terre moom la yàlla yóbbu yónni ne ko demal ci jaam yi nga wax leen li ma bëgg ak li ma bañ kooku la ñu yàlla yónnee kooku lañu ñu alxuraan jox mhm. yonentu boobu ñàkkutoon nekkutoon miskin mhm. yooyu yëpp ma wax noonu mhm. dinaa ko leeral incha allah yaa ngi dégg yonentu bi nga xam ne moom la ñu alxuraan jox yonentu boobu dafa nekkoon borom xam-xam boo xam ne jàngutoon waaye moo jàngal ñëpp boobu la ñu alxuraan jàngal te yonentu boobu benn baat lañ ko jàngaloo jàngaloo woon ko ay téere ñuy jàngale yëpp danañ ci seen jàngale gi ñuy jàngale waaw fan lañ lan la ñuy jàngale lan la ñuy jàngal nit ñi pour ñu sori l'islam moo tax ñuy jàngale jàngale yu bari yi mais yonent bi yàlla jox ñu ñun waaw ak yàlla yombalam ni mu yombalee benn tur rek la ko jàngaloo iqra bismi rabbika tout court amu leen waaye jàngkat yi ñoom ñi ngi digal ñépp ne jam jàngi uti xam-xam parce ka loolu iblis moo ko def pour jafeel yonent bi ba duñ jot l'islam duñ jot yonent bi waaye danga may may tuuti waaw ma wal la yonent bi ñu yàlla yónnee ni mu ñu jegee ak ni mu ni mu yombee yàlla jafeelu ko mm-hmm. yonent boobu benn mm. benn baat boobu mm. soxlawul nga nekk alim soxlawul nga nekk mufassir mm. soxlawul nga nekk euh, euh, muhaddis muhaddis soxlawul ci nga nekk dara mu ngi nekk mu ngi xam nga lu mu soxla pas-pas bu wér rek la soxla moo tax suufi suufiyank yi sooy dikk ci ñoom jikko boobu yonent doon jàng école boobu yonent doon formé gars yi moom lañ yor di ko formé moo tax duñ xool jàng nga wala jàngoo dañuy xool rek est-ce que yow sa pas-pas wér na soo hmm. dikkee ñu def ci yow yonentu boobu nga xam ne moom la ñu yàlla yónnee hmm. yonentu boobu nag moom benn benn tur rek lañ ko jàngaloo iqra bismi rabbika lazi xalaqa xalaqal insaan hmm. tur woowu rek ko jàngaloo donc bu ñuy roy ci moom loolu rek lañ war a roy ci moom waaw bu fekkee ne dañoo bëgg a delluwaat ci moom nga xam ne duñ yokk duñ wàññi rek fi ñu alxuraan yem la yemalal ci moom fa la ñuy yem duñ ci dolli leneen yeneen xam-xam yi ñuy jàng yëpp après dañ kan moo ñuy sant ñu jàng koo lan moo tax ñu jàng ñu koy jàng ak ci yenn baas la tegu moo tax fondement bi il faut ñu gasaat ko ndax kaaba gi amoon na jamono daal réeroon. waaw ah, dañoo mujj dem seetiwaat fondement bi bu tabaxaat ko. Mm-hmm. léegi l'islam jamono bi dafa réer léegi dañuy delluwaat ci fondement ba. Mm-hmm. pour jeexaat ko pour tabaxaat ko. loolu moo tax may indiwaat list yonent bi ñu yàlla yónni woon nga xam ne iblis daf ko tëj. Mm-hmm. ci jéeku moom. tegal ñu yonent bi indil ñu yonent bi ko neex mm-hmm. jox ñu téere yi ne jàngale la yonent bi ndax moo ma arrangé ci sama mission mission mm-hmm. loolu loolu nag yonent boobu la ñuy delloo si waat mm-hmm. indi ko ak indiwaat ko pour nit ñi nga xam ne moom lañ bëgg ñu gis seen yonent bi ñu bëgg ne daf leen jege ñu gis seen yonent bi ñu bëgg xam ne ñu ngi ànd ak ñoom dégg nga yonent boobu nag musul nekk miskin musul ñàkk yaa ngi dégg te yooyu yëpp danañ ko leeral incha léegi yonent boobu nag mu ngi dund ba tey Hmm. yonent boobu mu ngi ànd ak yàlla ba tey hmm. yonent boobu foo mën a nekk hmm. ci kaw àddina yaa ngi nekk ak moom mu ngi nekk ak saa moom mënuloo dem comme ni yàlla nekkee yàlla nga xam ne sans yàlla jaam bi mënul nekk noonu la yonent bi nekkee sans moom mënuloo dem moo tax yonent yàlla maama saa sallam kuy ku dund la koo xam ne du dee parce que bu dee du arranger humanité mhm. bu dee du arranger yàlla parce que yàlla yonentu mooy missionnaire mhm. kon yonentu boobu la yàlla yónnee yonentu bi ñu yàlla yónnee ci alquran mhm. kooku moom la yàlla wax ne ko wama arsalnaaka ila kaafatan linnaas te loolu danañ ko leeral incha allah wama arsalnaaka ila rahmatan lil kooku bu génnee àddina rek du baax yonentu boobu nga xam ne man damaa wax ne du ñàkk nekkutoon miskin kooku moo wax ne allahul muhti wa kooku mënul nekk ku ñàkk. parce que ñàkk. ku ku amul daraa koy def. bu fekkee ne yàlla mooy joxe. te li mu am yëpp moo koy joxe li ñu am yëpp yàllaa koy joxe. te yonent moo koy séddale. kooku bu ñu waxee dafa ñàkkoon kooku dañ koy seetaat. kan moo ñu wax ne dafa ñàkkoon ki wax dafa ñàkkoon kan la. ak fi ñu ko waxee fan la. moo tax yonent boobu nag bu ñu ko réeralee ba gisatuñ ko. boo mel ni wéetaay dafa am. ba mel ni ak. kéef kufru kéefar dafa taxawaat. waaw ba mel ni lislaam dafa gent. Hmm. boobaa nag dañuy dafay laaj nag ñu taxaw def jàngat taxaw jàngat nag pour xoolaat nag biñ yonent biñ ñu yónnee woon. Hmm. est-ce que ñun moom lañ topp. ndax bu fekkee moom lañ topp tumuraanke warul am. déedéet bu dee moom lañ topp ak wéetaay mënul am. déedéet bu dee moom lañ topp ak ñàkk mënul am. déedéet ñu xool nag ñi topp yonent bi. ci hmm. dëgg seen melo ak seen feeñuwaay. ak seen jeexit. ak ñi nga xam ne dañoo wan ginnaaw yonent bi. te jàngale beneen yonent bu bokk tax yonent bi ñu yàlla jox mm-hmm. ñu xool seen ay jeexit ak seen feeñuwaay yi foofu ngay xamee ne yonent bi ñuy jàngale mm-hmm. dëgg-dëgg ak yonent bi nga xam ne iblis moo ñu bi ñu iblis jox laa lay bëgg a waaw yonent bi ñu iblis mm. boobu daa dee yonent bi ñu iblis jox daa dee mm. waaw mais mag ñi moom dañuy wax borom xam-xam yi mm. dañuy wax ñu ne iblis mënul jël dara ci melo yonent bi ci dara boo géntee tëdd nelaw mm. gént yonent bi wala nga gént ko ci melaw beneen mm. ne yonent bi la mm. ñu ne moom la ndax nee nañ ku ko gént moom nga gént dëgg la képp ku ko gis ci lu dul nelaw moom nga gis ndax iblis du jël melokaanam dëgg la kon léegi boo waxee ne iblis dafa euh, rey yonent bi dafa euh, denc yonent ba la indil ñu beneen yonent bu bees te yonent bi ñuy indi yonent boobu dafa dee loolu naka la mun nekkee li mu mooy ci teg ci fa la parce que xam-xam. waaw dafa garaaw. alquran yàlla ko protéger wàccee ko indi ko protéger ko. Hmm. ne innaa nahnu nazzalnaa zikra wa innaa lahu lahaafizuun. Hmm. Hmm. ñun yàlla ñoo wàcce alquran. ñoo ko protéger. alquran kese moo am protection boo xam ne durant toute sa vie. kenn mënu ko yàq loolu alquran rek mucc mucc léegi nag texte yi nga xam ne moom lañ indi. ñu tuddee ko hadis. ut ay tur. def ay saxiixi Buxaari muslim mhm. foofu la Iblis euh, réussir mission te bul fàtt na si jamono euh, Muawiya mhm. euh, Muawiya reyoon na waa Medina xadis yu wér yi nga xam ne moom la yonent moom ma nekkoon la vie du prophète vrai waaw yi dañ koo denc tabaxal nu beneen yonentu boo xam ne boobu yonentu ñun xamuñ ko moo tax benn mbindeef ci mbindeef yàlla yi ma mës a déglu ci àddina waaw kenn rek laa ci mës a dégg mu am mu am dimension waaw mën a détecter histoire ba mën a di wax mais gars yi duñ ko dégg muy Ahmed Khalifa Niass mës na wax ne euh, Madinatu Munawwara waaw dañ reyoon nañ góor ñépp ça veut dire dëkk bu ñëwee rey ña fa dëkk ñëpp te ñoo yore histoire u l'islam waaw cela veut dire kon gental nañ l'islam l'islam day gent ñu tabaxaatal ñu beneen l'islam bu bees léegi l'islam boobu nag par sens yàlla indi woon na alquran mais am na ay hadis yoo xam ne yu sew la yoo xam ne dafa gàtt waaw joxuñ ko importance waaw fele fala loolu mooy moo révélé waat l'islam hadis yu gàtt yooyu yi nga xam ne defe nañ ne du dara du dara yooyu moo révélé waat moo génnee tawfiix rek moo koy mën a maye. ak xam-xam mu lay mën a bàyyiloo xel. ci hadis yu gàtt yooyu. comme li ma wax léegi allahul muxti wa anal xaasim kooku moo seetal yonent bi ci ñàkk ak pauvre yonent bi ñu jàngal dafa ñàkk. dafa doon takk xeeram da doon xi woor ba ngoon jot. mu takk ay xeeram ci biiram loolu wérul. loolu yonent boobu amul yonent boobu iblis moo ko jàngale pour wane jullit ñi. yéen da ngeen ñàkk seen njiit dafa ñàkk. léegi moom képp koo xam ne ku bokk ci moom na waaw daf lay def nga nekk ku am alal daf la ko nekk ku riche mu wane sa riche wane sa alal te yàlla ci yonent bi saa salaam ci alquran. waaw ci ci bu wér. waaw ak yonent bi saa ne man yàlla mooy joxe. man maay séddale man maay séddale. waaw donc kon lu doomu aadama am ci àddina. waaw xataa njabootu iblis li ñuy am. Hmm. yonent moo leen ko sédd. teraanga bu rëy boobu moo leen ko jox mais ñi am alal ñëpp. Hmm. te nga xam ne am nañ te jëlee ci yonent bi. waaw Iblis dafay taxaw ne moo leen jox. léegi ñi ñàkk ñi. waaw mu ne yonent moo leen. féetewoo moo donc kon da ngay gis si sew sew boobu ci ñàkk ga ak biir bu biir bu euh, koor ga. xiif ga xiif loo yonent yàlla ak ñàkk gañ ko ñàkkaloo ak ñàkk gañ ko ñàkkaloo woon. Mm-hmm. léegi dañ ciy naxee jullit ñi ne dafa wéqali woon ci boromam dafa wéeru woon ci boromam dafa yaakaaroon ci boromam ba tax xiif boobu am kon jullit ñi bu ngeen xiifee. jaadu na. comme ça jullit bi du ma sa yaakaar ci moom du yaakaar ci àddina mukk taraanga du yaakaar ci àddina mukk dund bu neex du yaakaar ci àddina mukk li gën a garaaw waaw mooy yàlla nguuram gi dàq nañ ko ci àddina alaxira lañ ko yóbbu waaw àddina kay ku ko topp loolu laa lu alxuraan wax li man li man ni niyal yow al yow mu eh, li man niyal mun ko al yow waaw li manil mulk yow du limanil mulkul yawma waaw kay limanil non ma mulku yawma liman liman niyal mulkul yawma yawma waaw lillaahi waahidul qahar waahidul qahar waaw yàlla mu ne kan moo moo nguur tey limanil mulkul yawma waaw nekkuñ ci ngu nekkuñ ci tey haa kay alquran dafay wax démb bàyyi tey waaye aaya boobu bu koy bu koy bu koy bu koy euh, tafsiroone yi di firi mu fassiroone yi bu ñu koy firi mu fassiroone yi alaaxira lañ koy yóbbu parce que yéen nguur gi. waaw dañ ko toxal yóbbu alaxira léegi nguur ak iblis moom lañ bàyyi àddina ndax àddina iblis da koo accaparé. comme Maliki yow mi diini dañ ko yóbbu alaxira alaxira lañ ko yóbbu bàyyi xañ ko àddina bi. Maliki yow mi diini ñu ne bésu pay bésu euh, euh, euh, bésu pay ba. waaw ñu ne yàlla mooy buur. waaw léegi bés boobu. waaw ci lañ nekk ba tey yàlla mooy buur tey. waaw yàlla mooy buur suba. yaa ngi dégg te ñun ñëpp ñu ngi daje. ci kanam yàlla mosu ñoo ñàkk a daje ci kanam yàlla comme que bés pénc boobu ñuy wax. waaw mooy dund humanité mooy bés pénc bés bu set yàllaa ngeen jàmm mi ci ñu ci doon yàlla musul am benn bés bu nekk feneen yàlla nekk feneen musul am iblis moo ñu nax wax ñu ne àllaaxira dañuy daje ne yowmal xiyaam. yowmal xiyaam mais dafa amoon wala am na. àllaaxira am na. waaw mais musul ñàkk am. maanaan ni ko définir. ni ñu ko expliquer iblis moo def définition boobu pour léegi pour nga mën a jëfandikoo yàlla. pour ma mën a jëfandikoo ñu génn àddina faw nga dee faw nga dee pour mën a jëfandikoo waa ñu dee yaa ngi dégg waaw faw nga dee pour mën a jëfandikoo yàlla faw nga dee pour mën a jot xéwalu yàlla faw nga parce que yàlla dañ ko illuminer ci àddina illuminer yonent bi ci àddina samp iblis samp nguuram ci àddina loolu moo indi ñu bëri ñu jàngale waaye xamul ni ñu jàngale lan li ñu wax dëddu àddina waaw fañ jëlee moo moo moo foofu la affaire bi nekk fañ jëlee moo baaxul léegi problème bi maa ngi ñëw. waaw ci yonent bi ñu iblis indil pareegu ma. waaw yonent boobu ñu iblis indil. Uh-huh. kenn du julli ci moom lu bëri foo ko foo ko bëggee def waa kër iblis taxaw ne la lu koy wéral. waaw ne koy wéral li nga indi bidaa la léegi samp xadis boo xam ne dañuy samp bidaa te ñaar rek moo am. Uh-huh. mbaax mbon moo am. bidaa amul fen bidaa mooy luy sos lu kenn mënu fee sos dara. déedéet sos kat sos. mooy uh-huh. koo xam ne da am pouvoiru yàlla kooku moo mën a sos lu amutoon indi lu amut kooku rek ko kooku moom mën a sos léegi yaa ngi dégg hmm. léegi nag sooy roy yonent bi hmm. sa nga xër bëgg a jëriñu wala nga bëgg a jàngal li ñu xër ci yonent bi hmm. ñu ne la li ngay xër ji bu ko ci bu def bu ko ci def iblis bi yonent bi mu jàngale kenn du xër ci moom yonent bi iblis jàng diine bi iblis jàngale kenn du tudd yàlla tudd gu bari te yàlla wax na leen ne uskurullah sikran kasiran ñi ñi iblis yar da nga leen fekk benn yoon ñu fanaanee guddi di sikkar ba bëccëg la ñuy dajale sikkar parce que duñ ko def iblis bëggul diine jooju diine ji ñu tudd yàlla tudd gu bëri. waaw boobu diine du diine du diine diine diine yàlla. fa la ñuy tuddee tudd yàlla tudd gu bëri. mais diine iblis kenn du fa tudd yàlla tudd gu bëri kenn du fa julli yonent ci yonent bi judd ko bëri kenn du fa dajee di jàngale jikkoom dañ koy aaye foofu seen diine kenn du fa jàngale Muhammad. ku fa bëgg a jàngale Muhammad ñu laaj la li ngay def mooy gàmmu. waaw gars jàngale yonent bi. waaw pour nit ki xam ko bëgg ko. waaw ñu ne la foo ko teg parce que ci seen constitution bi. seen téere bi ak seen sunna yi ñoom. amu ca moo tax boo ko indee dañu koy laaj. te te pourtant yàlla jàngale na yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam ci mbooleem fànn yi. waaw jàngale na ko ci jikko yi wa innaka la'alaa xuluqin aziim. dégg nga lu ma la wax. yàlla moo njëkk gàmmu. bu ñuy wax géwélu yaa géwélu yonent bi. waaw yàllaa ci jiitu. yàlla moo njëkk takk yonent bi takkkat mooy lan mooy sa géwél. mooy woykat mooy sa géwél. léegi borom xam-xam yëpp mujj nañ nekk géwélu yonent bi dafa yàlla lañ ci jiitu. tigi kon yàlla wane na ne ñun dañ koy woy wëy yonent bi dafa dagan mais iblis dafay aaye ko wëy bëgguñ ko bëgguñ ko ko donc yonent boobu la ñu iblis indil. Mhm. yonent ñuy iblis indil yonent boobu dafa tumuranke yaa ngi dégg. waaw dafa tumuranke ñu ne diinaam ñu daa tumuranke. waaw ci tumuranke la njëkk ci lay mujj. waaw wérul diina ji mos a tumuranke ci loxo yàlla jógee. Mhm. jaar ci loxo yonent yi. mos a jaar ci loxo mandikat. mos mhm. a jaar ci loxo njaalukat. mos a jaar ci loxo ku ñàkk. mos a jaar ci loxo ku réer. kon diina ji ñu wax ne dafa tumuranke mm. du suñ lislaam bi lislaam bi iblis indi mooy lislaam bu tumuranke bi mooy lislaam bi nga xam ne da ngay takk bomb mooy lislaam bi nga xam ne da ngay rey nit mooy lislaam bi rey ay mbokkam mm. boobu lislaam lislaamu iblis la waaye lislaam bi yàlla indi lislaam boobu salaam mooy identité bi identification bi mooy jàmm yaa ngi dégg waaw jàmm la mooy asalaamu asalaam ah. moom la waa këram di nuyuwaante jàmm jàmm yaa ngi dégg waaw l'islam boobu la la la yàlla yónnee yonent yonent bi nga xam ne moom la yónnee bi nga xam ne moom la iblis yónnee waaw l'islam yonent boobu diinaam waaw mooy terrorisme diinaam mooy reykat nit diinaam mooy diinaam mooy ñi nga xam ne ay doomam doomi l'islam boobu waaw dañuy takk takk bomb ak équipe explosé ci kaw ay njabootam parce que iblis loolu mooy intérêt mooy ay nit ñuy dee. waaw njabootam di dee sax garaawul. waaw iblis loolu mooy fonctionnaire fonction moom bu ay doomam di dee sax mu sacrifier leen sax garaawul. mais na pouvoir am dem rek. loolu moo tax l'islam boobu. Mhm. du l'islam bu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi Alxuraan indi ak yàlla yónnee ñu ko. Mhm. Muhammad sallallahu alayhi bi ñu yàlla yónnee. waaw diinaam amul reyante ku ci rey nit da dañ lay punir ci safara. waaw kooku ku ko xam bi sax yaa ngi xeex ak nit ki. Hmm. nga bëgg koo rey. waaw moom nga moom mu far la rey. waaw yéen ñaar yëpp dañ leen di yóbbu punir leen safara. donc bugguñu sax ko xalaat rey nit wax nga di ko rey kon l'islam bi ñu yónent yàlla yónnee. waaw bokkut ak l'islam bi iblis di jàngale. donc l'islam bële. Hmm. ak l'islam bii c'est diamétralement opposé. l'islam bële l'islam bi ñu yàlla yónnee. waaw laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy diine ji. waaw amul leneen julli yëpp ay taar la mais du ci dara. julli or aj màkka gànnaar ka du ci lenn. ah julli ñu ne moom mooy li gën a foor xëy sëriñ bi yow waxtaan yi ngay waxtaan nii. waaw dafay mel ni maanaam borom xam-xam yépp mhm. yaa ngi leen di wax ñu dem jàngi. dama leen di wax ne ñu sulli mag kii bi euh, euh, fondement bi. fondation fondement bi. Kaaba gi moo jàngale yonent bi Kaaba gi dafa réeroon. mais moo Muawiya mi ngay wax. Mhm. Muawiya si jamonoy saxaaba ya la. moom moo tabaxaat lislaam bi maanaam bu ma la déggee. moom waaw fonda ba maanaam tabax gi ñu tabaxaat lislaam mm. ci Muawiya la démarré. waaw ña yoroon lislaam pur ba. ñu rey leen ñoo ñëpp daf leen a rey. denc xadis yu baax yi. denc xadis yu baax yi. yi xadis yi jàngale yonent ñu nëbb ko. ko. yi si jot ci mooy yi nga xam ne dañoo. foogoon ne man bu ma indilee Sahihul Bukhari. waaw moo leen sahih yi nii sahih yi sahih yi yëpp. waaw waaw man bu ñu ci firi. waaw mën naa laa bi wér na bi na ma capacité boobu yàlla man yàlla defal na ma loolu mboolem hadis yi nekk ci àddina bi ci àddina bi waaw xam nga gars yi dañoo muus dañuy wax ne pour nga nekk mu hadis mu hadis woona mu hadis mu hadis waaw pour nga nekk ko waaw il faut nga cent vingt quatre mille hadis hadis bu nekk da ngay xam sanat bi diw diw la diw moo ko solo eh. diw diw moo ko solo diw moo diw diw moo ko solo pour ñu xool ba xam est ce que bi ci seen gars yi la jógee waaw wala ci yéen yàlla la jëm bu dee ci yàlla la jógee ñu ne la ñu ne la kii daanxe la hadis daanxe la du hadis saxi xadis saxiix mooy lii Iblis bind boo demee ci boo demee ci Buxaari ak Muslim ah. ya fa nekk ci xadis yoo xam ne mooy yonent bi yàlla yónni ah. tuuti la fa la ca des yëpp xadis bu Iblis jàngale la ak Muawiya comme tey boo ñu si doon indil benn si xadis yi nga xam ne Iblis moo ko jàngale mhm. boo xam ne nii mooy li ñoo xam ne lislaam dafa tumuraanke moom laa doon moom laa doon dox nga dagg ma waaw damay lislaam dafa tumuraanke waaw ma la lislaam lu jógee ci loxo yàlla lekk ci loxo yàlla dafa tumatànk déedéet inna diina xendalaay islam l'islam mu mu jógee a gis a yor la tumatànk ba ba ñu egsi ci loxo yonent yàlla maam salaam mas naa tumatànk déedéet ba mu jógee ci yàlla ba ni mu egsi ci yonent yàlla maam salaam ci ay loxo ay yonent lañ la jaar la jaar waaw boo demee ci yonent yi uh-huh. ci matal yàlla wax na ne saadix saadix la nabi saadix waaw saadix yàlla da nga ko waaw yàlla na saadix waaw waskur kitaaba eh, insa muusa sadiq sadiqan sadiqan sadiqan kon yàlla dëggalal na ñooñu mm-hmm. que ñoom lisaalatu bi ñu leen joxoon matal nañ ko kon xam nga kooku musul jàdd ci àll bi musul nekk ci ñall bi déedéet ba ba mu egsee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ki gën ci mbindee yi waaw lu nekk ci loxol yonent bi waaw mën naa tumu rànk déedéet wax naa ci sama jotaay a paas dama la sama kër gi ku fi nekk sax dootuma la ku nekk ci loxo yàlla ak yonent bi yàlla ah. ak yonent bi xadis boobu bu ñu ko bëggee wéral fu ñu koy rek diina ji tumuraanke góor jox ah. diina ji tumuraanke joo xam ne mu jógee ci war a leeral addina waaw war a garanti mbindeef ñi waaw war a garanti humanité waaw ñu ne dafa tumuraanke kooku iblis moo jàngale boobu diina xadis boobu wérut nañ koy dindi hadis bi nga xam ne mooy sëriñ <laughs> bi yaa ngi wax waxtaan bu yëglu garaaw ak garaaw ak garaaw ak garaaw pare naa waaw pour mboolem mu hadis yi waaw ku ci am fit waaw jàng waaw ñëwal ñu toog nga indil ma hadis boo jàng ci kaw suuf boo wax rek bu wéree mën naa la wax bi wér na bi wér hadis bi nga wax nii dañ koy jàngale dañuy jàngale gaa yaa ngi koy duñu indi texte yi xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw l'islam bi ñu yàlla yónnee waaw du texte jëmm la jëmm la dégg la du texte de. Ah. jëmm la texte yi lañ indi pour ñu jàngale jëmmi lislaam mais dañoo bàyyi jëmmi lislaam di jàngale texte yi pour ñu dem jaamu ji yàlla texte. man dañoo créé yàlla boo xam ne nii. ci texte lislaam boo xam ne ay texte la lislaam dañ koo tënk ci ay. texte lislaam bi ñuy bi ñuy jàngalu ñun bu iblis indi. waaw ay texte la waaye lislaam bi jógee ci yàlla. waaw jëmm la man ba ma ko laajee ma wax la ko. jëmmi lislaam jëmmi lislaam. laaxee ñu ko biir boo. xam nga jëmmi lislaam. waaw xam nga yaa ngi doon wax léegi nga ne julli loo ci bëggoon a wax léegi nga ne julli ak ni mu toll ma la ma ne la ma ne laa ilaha illa Muhammadu rasulullah rek moom mooy ma ne ne wax nañ ne julli mooy ponk bi gën a fort ci lislaam déedéet ñu ne fort gi mu fort moo tax yàlla ba nga jox yonent bi daal daf koy yéegee ca kaw fa fa la jëlee ji julli déedéet loolu wérut ah waaw loolu mën naa wax wérut ko man naa ko maa ko weddi man li gën a fort ci lislaam mooy laa ilaha illa Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi julli du ma jógee rek jóg ci te waxoo laa ilaha illa Muhammadu dañ ko accordé déedéet benn point yaa ngi noonu léegi yow nee nga déedéet ci saasi <laughs> yow mi doon wax taf yow léegi dèjà bi nee nga déedéet ci tàng tàng bi. waaw ndax yàlla wax ku ku jugee ci christianisme. waaw bëgg l'islam neex déedéet a jullim kenn sañ na ku sàggal lañ ko tuddee. ku sàggal lañ ko tuddee. kon ponk bi gën a nekk ci l'islam première ponk. waaw mooy. laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo tax yàlla yoonu bi mu ko joxee yónni am saa salaam. téye na ko treize ans. fukki at ak ñett. waaw julli sa ko wàcc. te ba gaa nekkoon jullit bu doon mooy ponk bi nekk kon ñi nekkoon jullit treize ans yi kon seen islam bu baaxutoon. affaire bu garaaw. dama lay waxaat rek li ma lay wax lu leer laa lay wax. waaw donc l'islam. waaw mooy nit nit mooy islam nit nit mooy islam. nit doomu aadama mooy mooy islam. ci naka. mu voilà très bonne question. laa ilaha illallah muhammad rasulullah. sallallahu alayhi ah, doomu mooy bopp doomu aadama. waaw. la indil yëpp nag aaya yi hadis yi yëpp. waaw iqaami salaat mooy taxawal julli juróom. waaw ah mooy xol. wa loxo. wa ramadan. waaw mooy biir. waxajul bayti laahil haram. liman uh, liman istataa liman istataa liman istataa ilayhi sabila. waaw mooy tànk. waaw léegi bopp. waaw boo ko daggee ci nit. waaw est-ce que diineem est-ce que nit ki dana fa ne. déedéet day déedéet laa ilaaha illallaah jënd ko ci diine ji. nit ki ñëw rek bu ko ko wax bu ko ko wax nga ne ko dugg nga ci diine ji demal julli ji. ndax dana wér. déedéet wér man borom xam-xam moo sañee taxaw wax ne inférieur bu dugg ci diine lislaam sañu te wax laa ilaaha illallaah Muhammad rasuulullaah am na diineem. te képp ku ñëw wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaahi dugg ci lislaam boo jullee boo julli wut kenn sañu laa wax nga déedéet kon bopp bi moom mooy laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaahi bu bopp bi dagg ngay dee te borom xam-xam yi julli mooy bopp si doomu aadama waaw loolu piège bu leen iblis piégé woon la ngir mën fee jëlee laa ilaaha illallaah muhammadu voilà ndax mbëggeel seen mbëggeel ci yonent bi ak mbëggeel ci lislaam ak xër gi waaw fa la leen iblis piégé dafa xam xam loo xër rek waaw ñu nax la ma tax sallam mu ne xayru mbir yëpp la sa gën mooy la dëgg dóomu waaw booy bëgg dara bëgg ko bëgg gu yem ndax boo demee ba gis ne réer la nga mën caa génn soo koy bañ bañ ko bañ gu yem boo demee ba gis ne dëgg la nga mën koo jël ah waaye bëgg yonent bi moom xër caa ko xër caa ca gën yonent bi ñu yàlla yónnee yonent bi yàlla yónnee moom bu la neexee xër ci waaye yonent bi iblis dangale moom booy boo def ci ndànk léegi il faut que ñu dem ñu delluwaat ci. iblis ñu jàngale maa ngi lay jàngal lislaam ma ne la bopp la la waxal ko. waaw waaw waaw la bopp ne la laa ilaha illallah boo gisee boo gisee muy lislaam waaw gis nga ni itaay zakat wa sawm ramadan. hajjul baytillaahil haraam ni man tataay ak iqaami salaat wa itaay zakat wa sawm ramadan wa hajjul baytillaahil haraam liman tataay ilayhi sabila nim nekkee ci jëmm yëpp la ko yàlla dajale waatee ci bopp bi pour nga xam ne laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah mooy ci ban anam. ak ah, iqaami salaam mooy bët julli da am sa gërsëg gi bët du am xef. xef waaw. waaye itaay zakaat mooy bakkan bakkan mooy génne xasaka ka nga nooy mu dugg. waa ñu la la wàññi joxe nga génne génne wasaama ramadan mooy gémmiñ ci ngay lekkee ci ngay naan boo ko tëjee kenn dootu kenn lekkee dootu def naan waxajul bayt laay xaraam mooy nopp loolu dégg rek sa nopp mooy dem jëli ko indi la ko na la lii da xale bu jooy fële la wala oto bu mëkkante la wala bal bu toj wala fetal buñ tiire la nopp koy jëli mooy sa mooy xajul bayt laay xaraam mooy bopp boo ko daggee lislaam dem na waaw l'islam bu ba lay jàngal mooy l'islam boo xam ne ku jàng ku jàng laal di ko gis boobu la ñu yàlla yónnee l'islam boobu moo tax tubaab yi xam nañ ko waaw seytaane xam na ko waaw l'islam kenn mënu ko xeex kenn mënu ko fay jëlee fekk nit a ngi am rek mooy l'islam a ngi am fu waaye bañ l'islam rek xamal ne moo tax yonent saa mu ne ci hadis bu wér waaw mu ne ku nekk rek l'islam nga juddwaale gëm yàlla nga indaal say waay jur ñoo lay majjoos loo ñoo lay nasaraan loo wala ñu yëxóot loo la Mm-hmm. maa firi laay bi maa firi hadis boobu tey. ci anam. mooy jëmmi nit ki mooy. lislaam jëmmi doomu aadama mooy lislaam parce que ku judd da nga am na. léegi ñi nga xam ne ni amuñ tànk juddu nañu moo tax ñu ne ku amul xalaat bu parce que boo amul ay tànk. li ma di satan ilay sabila voilà la. boo amul alal bu dem Màkka. waaw aj wàcc na la. ñaa ngi dem di aji. waaye waaw non loolu dama ne am na raay. am na islam nga xam ne da nga koy waaw mooy tax mu ne mooy représentant yàlla sur terre. léegi lan moo tax borom xam-xame ñoom jàngale wuñ parce que texte yi ñuy jàngale. li ci gën a bëri iblis moo ko bind. moo tax bëggu jàngale l'islam bi dund bëggu jàngale Muhammad bi ñuy gis l'islam bi ñuy laal bëggu ko l'islam bi ñuy jàngale mooy dàq texte yi ñim accordé ñooy borom xam-xam yi rek ñooy wax ñu amul ñëpp xam dëgg sax dañ lay noppiloo. loo wax ñu ne la ana lu ko wëral ana ah, xaddal bi lu ñuy laal ak loxo di ko gis ak bët xel di ko nangu loolu soxla ay soxla na ay dalil déedéet kaay añ añ baa ngi nii tibbal lekk nga tibb seex ñu ne la indil autorisation buy wane na añ bi baax na te añ bi ñu ko togg leen yàq ko li yaa ngi koy gis sa bëti bi maanaa daal texte yi dafa ñëw ngir tënk doomi lislaam ak lislaam waaw ci yenn texte yi ci yenn texte yi waaw mais li texte yi dëppale lislaam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la te day lu bëri wa allahu muxsi wa ana alxaasi waaw du yàlla yonentu ma ko waaw yàlla moo joxe may séddale waaw waaye yonentu bi ma wax la lu tax ñu lañ naan dañu dañ ñàkkloo foofu laa yonentu bi duñ juddoo waaw sallallahu alayhi wa waaw gars yi ñëwee di ñëw di wut si ay doom yu nàmpal waaw yonentu guddi gi mu judd waaw la nguuru Kisra toj safaris waaw safaris sa dañ doon jaamu fay waaw te te géej ga ñiis waaw ci barkeem waaw yaa ngi dégg buur yëpp fanaan suuf ndax màggaayam yaa ngi dégg. sallallahu alayhi wa sallam. bi gaa yi jógee Taayif ñëw di nampal si ut si ay doom. waaw di nampal si. waaw biñ dikkee. waaw euh, bi gaa yi jógee fële waaw ñëw di namp si ay doom yu ñu nampal si. jógee Taayif ñëw di ut si doom yu nampal. Euh, nampal waaw. kay noonu la sax. waaw yaa ngi dégg. waaw léegi biñ dikkee biñ waxee yonent bi saa salaam amul ndey amul baay. waaw gaa yi dañ koo daw. waaw léegi ñu Xalimatu Sahdiya mi nga xam ne yàlla rek la yaakaar ak yonentam. waaw bi mu jëlee yonent bi. teg ko ci kanam mbaam mi. mbaam mi daa ràggoo waaw loolu du loolu lañ jàngale. waaw waaw ku ñàkk miskin. waaw ñàkk am ñàkk ba ñàkk. waaw yow koo xam ne yow da ngaa judd rek ci waxtu yu nga judd nekk liir nekk liir teew xet. waaw mbaam yë mbaam yëg la rek suur. waaw fer jàll am xet bu neex. mboolem mbaam yi ko jiitu woon mu rew leen mbaam moom nga xam ne moom la toogoon waxuma nit ki de. waaw nit ko nàmp waxaguma ko moom jëmmi waa ji waxaguma ko. waaw mbaam meñ teg waa rek. waaw fu mu dem di wëtti. mbaam ñëpp la ñuy dem parce que day ci barkeeb toog tëdd gi waaye léegi li naatal li li naatal mbaam mi mën naa miskil loo waa kër gi déedéet xel nangu na loolu déedéet moo tax nangu ko def ko ci këram fekk moomu ko maa koy fokkati delluwaat ko bi ñu yàlla jun jox waaw musul ñàkk xam ko sax ñi ngi jàngale si moom ba tey de parfum waaw maa dem Madinatu Munawwara mu may xeeñ dëkk ba yëpp parfum yonent moo koy xeeñ te fii ku fi bëgg parfum bu la xeeñ du def 48 heures ci sa yaram mu deñ waaw ba mu génnee àddina ba tey parfum baa bay xeeñ medinatul munawwara mu ne medinatul ku yàlla seqati sa bati paxe na medina ba mu daj mille quatre cent ans mille quatre mille quatre cent quarante deux ans benn parfum di ko def ñu ne kooku jógee def mën naa ne koo xam ne parfum bu ñu fi def sa jëmm ñu ne dëgg def mën naa nekk yonentu boobu lay wax nit ñi ñu ñu jàpp ko xam ne mu ngi ànd ak ñoom. léegi noo ñuy wanee noo ñu koy wanee bañ gis ne mi ngi dund. dafa nag rek l'islam bi laa lay wan. waaw yàlla yonentu saa sa dafa allahul muuti. wa anal xaasim waaw yow yaa ngi ci ñàkkam waaw dafa nag rek. waaw séddale boobu ci laa nekk. waaw ma ne laa dégg mbaam moomu sëga moom la mën a teg yonent bi rek. waaw ah. fu mu dem di lekki. waaw foofa napp fu mu dem di naani foofa fees. waaw kooku teg giñ ko teg yonent bi rek mu yóbbu transporté ko kese moo ko may wërsëg woowu ana ñu yendoog yonent bi fanaanoog moom di dëkk ak moom texte yooyu dañ koy génnee jàngale yonent bi nga xam ne fu mu rek koom-koom am fa te li koy wéral hmm. mooy xatal aan tey tey nañ dem madinati madinatu munawwara gi ñu dafa lañ ko denc na xool ko mu wala dëkk àddina bi ndax benn dëkk a koo taaru nañ nattale jumaam jëm boo leen jumaayi àddina bi ndax benn dëkk gën a koo rafet bu doon miskin la dana am loolu déedéet aywa kon kan est-ce que ñëwul gannaawam ba kan moo ñu ban yonent lañuy la ñuy wax kan ki ñuy wax ku kan la kooku mooy muzammam waaye muhammad bokkut ak muzammam muzammam la iblis di jàngale <laughs> moom la moom la moom la moom la mu fassiru nii di jàngale muzammam muzammam ñoom ñëpp ay élément iblis la iblis leen tabax képp képp ku jàngale wut yonent képp ku jàngale wut yonent bi dund sallallahu alayhi képp ku jàngale wut yonent bi xoom waaw képp ku jàngale wut yonent bu am barke bi waaw képp ku jàngale wut yonent bi jàpp jaam bi yóbbu ci yàlla waaw muzammam ngay jàngale jàngale woo muhammad waaw. Muhammad yàlla dafa bañ mu réer ba nit ki ah. waaw bopp bi miim la. Hmm. loxo yi. waaw dellu la. biir bi. miim la. tànk yi dellu la kañ la fi jóge léegi lii la loolu lu mu tudd. Muhammad. laa ma doon laaj ma wan ko. léegi loolu ma leer lu kan la. Muhammad kañ la fi jóge yow ban Muhammad ngay xaar. mais boobu nit ñi xam nañ ko de te pourtant ñi ngi jàngale Mouhamad boobu de. mooy mooy bi Iblis di jàngale boobu mooy bu texte bi. léegi léegi texte yi rek koy dañ koo bàyyi dem jëli texte bi. texte yi di ko jàngale ko jàngale. texte yi moo indi problème mu blocage bi. am parce que foofu il faut bu indiwul texte yi. waaw duñ bloqué nit ñi. parce que bu ñu indiwul texte yi nit ñi dañuy gis Mouhamad. allahu akbar léegi léegi euh, xeex bi nga xam ne. yaa ngi ko doon waaj fii. dafa nànk rek waaw continué islam laa lay jàngal ci bopp rek laa toll moom. allah waaw waaw yëg see ko laa la jàngal moom indi naa la l'islam ci bopp kese naa la koor ak màkk génne xasaka ak laay laay la moom rasulullah ci bopp. waaw boo ko daggee rek l'islam dem. waaw ne la laay laay laa def na ans julli soo ko wàcc. julli doo ko wàcc waaw ah. te gaa yi ngi doon jaamu yàlla. saa bay te ñu ngi doon jaamu la moom kon léegi problème bi lan la julli bu yàqoo bu baaxee dafa nàkk ma indi la julli. waa mooy xol. waaw yonent lu mu wax ci hadis bu wér. waaw jëmmi doomu aadama lu mu mën nga ci boo xam ne bu baaxee. waaw jëmm ji baax. waaw su yàqoo jëmm ji yàqu. lu ñu wax ñu ne yowmal qiyaam boo ñëwee bu ñu xoolee sa dossier gis sa julli baax dootuñu jënti leneen. waaw waaw kon mooy loolu. alquran ne yawma laa yanfa'u maalun walaa banuun illaa man ataa bi qalbin saliim. aywa bés boobu soxlawul leneen lu dul xol bu sell du doom du xalaat. du xaskan du xeet. dara mooy mooy xol moo tax julli inna salaata tanha anil fahsaa'i wal munkar wala zikrullaahi akbar ñu ne julli ah. lu bon mooy tax jëmm ji xéwén ndax boo deful ah. moo bu ji julli baaxee waaw ah. jëmm baax bu baaxee jëmm ji xéwén <laughs> loolu leerul wala gën a màgg waaw ba mooy ki gën a màgg mooy ki gën a kawe mooy bopp moo ko féetee kaw mooy laa ilaaha laa ilaaha muhammadu waaw mooy yàlla mooy wasaa xaamoo salaate xaamoo kusaala yàlla mu wax ne isaa euh, nuuti yow lislaati mi yow mi jumaa fas xaw ilaa zikrillah waxut dama julli de dama nga tam fa fa ñuy tuddee yàlla waaw zikrillah fàtt ko yàlla dama tuddi yàlla kon zikru buñ ko génnee ci biir julli sax julli dootu nekkati dootu amati benn effet wala zikrullah akbar génne laay la génneel allahu akbar ci julli génn génn sami allahu liman amida génn zikru kii rek as kii rek euh, sikar rek ko ci julli nga xool waaye waaye allahu akbar mun na manqué si julli du yàq julli. waaw mais génnee ci sikkar rek fatiha. fatiha moom bu manqué si julli day yàq. xam nga lu ko waral. waaw mooy xol bu yonentu amul yonentu mooy fatiha ci xol. ci naka. mooy yonentu xol bu amul mbëggeel yonentu bi ku yonentu maanaam mbëggeel yonentu bu mu fanaan ci sa xol. waaw maanaam sa xol bi baaxul di loolu mooy baaxal xol bi mooy fatiha léegi nag gannaaw yonentu bi. sallallahu alayhi wa sallam ku la neex ku la neex bëggal mooy jul saa nu la neex tekki boo amul fàkkiya sax boo amul beneen saar sax gannaaw julli gi dana baax xol boo xam ne yonent kese la bëgg waaw keneen bëggul keneen ku dul yonent bi hmm. xol fii fu aadi ko <laughs> li ngay wax tax na mu koy yëg ci sama dënd xol ko gis soxlawul jàngi allahu akbar ko laa tara dit ñu may gis sikkara si waaw mais teg sama xol aw lisaan yi wala sama làmmiñ doo ko gis bàyyi ma ko wax Muhammad moomu nag lañ war a jàngale bàyyi zam mu zammam mu doy na xadis yëpp mu zammam la ñuy jàngale li ngay wax nii de ma de lu ma koy dëggalee en tant que man hmm. mooy ñi waade bëri nañ. Mm-hmm. ñi jàng bari nañ. tey ku eew bu nga eewoon da bëgg yonent bi da xam ne yonent jege na rek. man nii may wax ak yow. yaa sama maa ngi fees del. del ak mbëggeelam koy déglu te mu ngi am mbëggeel ba mu ngi gis Muhammad léegi. sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mi ñu tëjoon tijji nañ ko libéré nañ ko ma léegi dugg. voilà léegi nag gars yi ñu ne Muhammad mi ñuy jàngale dee na. waaw waaw iblis moom nangu nañ dafay des. yow yàlla bind yonent bi. waaw tànn ko. waaw nga nangu iblis def bi. waaw Muhammad dee. xam nga iblis moo santaan nañu rey Muhammad parce que bu fi nekkee ñoom ñaar ñu nekk fi rek nguuram day daan léegi pour mu mën a doxal mission. waaw Mouhamad day dee muy jàngale mu sam moom léegi su ko defee moom mu ne fi. waaw waaw léegi ñaari ñuy xuloo kan moo ko indi. Iblis. ñaari ñu tongu wante ku ko def. Iblis waa léegi ñaari ñu waxtaan ba d'accord ku ne dox dox ko sa morom ku ko def duñ ko dox Mouhamad te moom moom lu baax. ba nga ko waxee damaa toog xelaat kan moo ko war a def. mooy Mouhamad. sallallahu alayhi wa sallam. léegi nag Iblis du nangu jox ko Mouhamad parce que bu boobaa Mouhamad day gis day gis li. léegi Iblis moom ku xuloo ñu ne Iblis ak ñi ñi xuloo di toll ci àddina bi ak histoire li mu bëri ci àddina bi Iblis kenn la ñu jox ko pouvoir boo xam ne ku xuloo mu nekk moom ku tongu wante mu nekk moom ci même instant bi ñëpp moom la moo leen koy def waaw moom yàlla jox pouvoir bi yàlla moom kattan moom moom xéwal moom gaaw moom lépp ànd ak Muhammad may ko lépp lépp lépp lépp Iblis ñu ko lépp kiñ xañ lii kiñ man may tële. tële rek loolu mën naa ne. man moo tax Muhammad la ñuy jàngale léegi bàyyi musammam man maa ngi jàngale Muhammad Cheikhou Cheikhou li ngay ñu gis Muhammad Muhammad léegi dafa libéré wu dafa toog ko mu ne te ñëpp dinañ xam ne jiital na ma man maa koy wane parce que li ngay wax ni tey ku am xewal am alal boo commencé wane sa alal sax. ñu ne la ñu ñu ne moytul cat. moytul cat. te waa kër Iblis lu leen neex wane. waaw lu leen neex def te dara du leen di fekk kay garanti waa kër Iblis mooy garanti borom xaalis bi waaye comme Iblis saay-saay la. waaw moom mooy indi cat. léegi nag soo ko weddee. waaw mu roof la tooke. nga gëm na cat dëgg la nga gëm na cat am na. léegi est-ce que borom est-ce que borom alal ñi nga xam ne ñoom am nañ ba yàlla féexal seen lépp. ñi nekk ay jullit est-ce que am nañ sañ-sañu pour mën a génnee seen parce que ku ko si def. ñoo ko war a def parce que ñoo gëm Muhammad. léegi ku ko si def sa alal yàqu. doo ko dara du du dëgg. Hmm. du dëgg amul. waaw maa ko dëgg nguur iblis daanu la ay nguur gi daanu moo tax li di feeñ lii dañ ko denc dëkkat bi. waaw maa ko fa génne ko fa. ngi tëji woon tëji gu mat. waaw maa ko fa génne man rek maa sañ ci kaw suuf ne man rek maa défier iblis sur terre. gannaaw yàlla yonent bi ak Cheikh Tidiane Cheikh Ibrahima waaw man doo ko sañ ku ko wax doo fa léegi li nga doon wax ci lislaam bi ci doomu aadama laa jëm julli julli laa tollagum de waaw yaa ngi ci julli waaw waaw yaa ngi dégg waaw yàlla ne ci alquran uh-huh. inna salaata tanha anil fahsaa'i wal munkar waaw wala zikrullaahi akbar waaw julli day hmm. teet yu bon yi day tax yow doo ko mën a def ndax bu ba bu yàggee rek jëmm ji baax waaw yaa ngi dégg mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo féete kaw moo gën a màgg waaw yaa ngi dégg léegi ñu ne la julli hmm. benn ponk rek benn sàrt la ñu ci tëralal ci ci ci ci alquran mooy fatiha mu waru koo ñàkk julli julli léegi nag fatiha mooy yonentu bi warta ñàkk ci xol hmm? boo paree ci yonentu bi nag bu dee sa yaay ak sa baay infir lañ su la neexee dem ut sa sëriñ def ko ci sa xol su la neexee ut sa jabar ju baax nga def ko ci sa xol mooy nga jël beneen saar wu la neex tey ah fii contraire bi moo am. ci jamono jii moo tax léegi nag mu mu zammam moomu doon jàngale. woykat yi woy yonent beeg. waaw ak eh, waaraatekat yi waare jëm ci lislaam ak. waaw ci ak li nga doon wax léegi ci xiif gi nga xam ne ñu ngi ko xiifloo ak rafle gi ñu ko rafle loo. yéen nag bu ñuy jàngalee yonent Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam muzammam muzammam waaw. day ñàkk day bëgg jigéen du bëgg yàlla de day bëgg jigéen. waaw ay jafe-jafe lañ ko indi. kum gis bëgg la rek dagal nga ko yaa ngi dégg parce que pour gars yi mën koo reetaan ñoom dañ koy reetaan seen hadis yooyu bu ñu koy ñoom ñi bind hadis yi dañ koy reetaan ki amul capacité mën a toog ak yi xam seen jikko ak seen wax doo xam li may wax man mi leen man man mi leen mën a fekk jàpp leen laaj leen ñu wax man naa xam li may wax lan la parce que Muhammad mi ñu jàngale yàlla rek mooy bëgg-bëggam amul soxla ci ay jigéen déedéet Muhammad mi nga xam ne moom lañu yàlla yónnee. waaw déedéet kooku yàlla rek la tal talut leneen. amul sa li la koy jàngal. waaw ma yàlla la tal. waaw képp alal ci màkka. waaw la ko. waaw buubut lépp delloo ko. waaw dox ma ci lu may ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi bëgg am jabar ju jabar ju mën moo xew sax ci jamono ji. na Muhammad mi nga xam ne nag moom mi nga yooyu. dafa rëcc gaa yi dañoo foogoon ne ay détails la. yàlla moo la gën a xereñ que yàlla mooy ki gën a xereñ waaw alxakim mooy xakim waaw léegi nag Muhammad moomu hmm. bi jabaram génne àddina hmm. toog na at talu jigéen kooku dafa tal ay jigéen ba jigéen a ñëw ne ko yow xanaa dangaa dox wala lu la daal Xadijatu bi mu dee ba tey taloo jagar jabar ah moom de dañ koy bàkkee ku bëgg jigéen. non parce moom dañ koy reetaan parce que moom wax Muhammad ci musammam moomu Muhammad man moom su may wax Muhammad mi yàlla yónni laay wax Muhammad mi yàlla yónni laay jàngale man. waaw moo tax moom iblis yi. waaw boobu baaxut. mais li ngay li ngay wax nii ay borom xam-xam yu mag a mag a mag a mag a. seen mbëggeel ci yonent bi lañ leen mbir bi kuy daanu ku ne ci lañ lay naxee. Hmm. nañ ne ku ko bëgg nax da ngay xaar ba gàmmu. waaw waaw ku ko indil hadis doo ko rey. ndeysaan. dëgg la wala wér ay soxna koo xam ne yow koo xam ne gàmmu yaa ngi koy xool moo la yar. waaw moo la jàngal. waaw xam sa jikko. xam sa capacité. nga wax ko loo xam ne leer na ko leer yàlla na sa dayoo eggu fa. waaw nga askan ko yonent bi moom gisut loolu ndax mbëggeel gi soo ko indilee téere bu ñu bind boo xam ne def na quarante cinq ans wala def na soixante ans dana tax dafa lijjanti. te nga naa yus moom yow na nga ko askan yonent rek. na na nga ko yow askan yonent rek bu mu dugg ci xalaal ak xaraam rek. léegi ñi dem ci wàllu. yi nga xam ne moom mooy itaay zakat itaay zakat mooy mooy joxe asaka waaw asaka loxo koy joxe waaw loxo mooy joxe asaka moo tax mooy loxo ci cër mooy loxo asaka asaka zakat zakat dañuy joxe la waaw mooy loxo ci nit ci nit ki xajjul bayti laay xaraam man dem naa màkka waaw toogaay du fa doy sotal dara de da ngay dox ba waaj a dee màkka màkka ko dem dem sànni ji jam la waaw jigéen jam la jëm xaaba ga di nga kaaba nga tawaaf wër kaaba nga dem dawee tawaaf marwa waaw di xam ne màkk tànk fay tànk fay sottal yëfi de ak doole allahu akbar kon wax xajul baytillaahi xaraam mooy tànk ci nit li mooy lislaam bi yàlla bind kenn mënu ko fals moom la ñu ne duñ ko yokk duñ ko wàññi waaye nekkul am xalaat bu rafet indi ko ñu dolli ko ci loolu moom la gaa yi piraté tëj mbaax hmm. gi tëj xéwal gi tëj yërmande gi ne lislaam kat al yawma akmaltu lakum diinakum ne bés boobu moom la yonent bi matal waaye du mbaaxaa yàlla fa la mate du yërëmaandem fa la jeexe du xam-xam parce que toppalaa wa yu àllimukumaa boo xam yàlla yàlla ah, ah. ma neex ah. eh, yutil xikma man yasha waaw eh, ko ci téléphone bi rek eh. damaa fàttalaay jaa ngi dégg yàlla mu ne waaye wolof ba mun naa xoolal mu ne yuti xikma yàlla mu ne man maa jox xikma ku ma neex yaa ngi dégg te ku ñu jox xikma jox lañ la xiw bu bëri wa maa yuzakkaru illaa ulul albaab foofu la aaya di xam eh, eh, eh, kii bi ndax waxtaan ma moom tënk yaa ngi li yi xikmatu boobu yàlla joxe kii bi dañ koo rayee parce que xikma xala l'islam bi doon gën a firéekoo comme waxtaan tey bi waaw xam nga waxtaan tey ci biir xikma lañ koy dugal waaw ndax li ngay wax dafay leer dañu teg loxo waaw te doo yokk loolu koy def waaw te doo yokk doo wàññi li ma fi wax yëpp yokk ma wàññiwu ma damaa leer rek loolu mooy xikma léegi nag ñu raye ko parce que boo indee xalaat ñu ne la bul dolli ci diina ji bu dee loolu la ku wax indi sa xalaat ku wax indi sa xalaat bu yàggee diina ji dootuñu xamante repère bi tigi te ñoom effacé nañ l'islam hmm. ba pare di bañ ko jàngale l'islam tigi donc l'islam loolu mooy l'islam waaw Muhammad bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam waaw kooku dafa baax mhm. wa ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin lil alamin waaw léegi dafa lay laaj bu dee yàlla moo yónni yonent bi mhm. yërmaande mhm. pour alam bi fekkee dee na léegi ñi am yërmaande léegi ku leen ko jox te moom rek la yàlla wax na ko yow laa yónni yërmaande ku leen jox yërmaande te lu bon lu ne xam ne Iblis a koy joxe hmm. iblis moom moom mbiram. waaw kenn du ko denc. kenn du ko nëbb ndax moom feeñal ko du gàcce ci moom moo mu dominé mu mel ni lislaam dafa gent mu mel ni lislaam dafa ñibbi fekk lislaam moom fi iblis moo ci dëgg tànkam forme ay éléments yu jiite. waaw boo demee ci jàkkee ay ay góor jigéen la ñuy waxtaanee xutba. waaw ay góor jigéen. ay waroon ko def publication la damay jàngal éléments yi nga xam ne dañuy xutba bu ñu dugatee ci min bari. nañu wax julli wax or xiir boo waxee lu mu bon bon bu dee téeméer yu nit ñoo nekk ci biir dàq ji dina am kenn wala ñaar wala ñett ñoo xam ne dinañ eew guddi naafil ndax sa waaraate bi ah, waaye waaye boo toogee ci minbar bi ñëpp tiim la nga naan ah l'islam bi léegi ñun imaam yi ñoo ko war a xoolaat ñun lii ñun laa yow yaa ngi xas sa diine yow en tant que kii war a wax nit ñi l'islam bu baax bi ngay oo sa population jàkkaarloo ak ñoom di xas sa diine ji jëmale ko njëkkee ko ci yow loolu mooy bu baax yaa ngi pro jox promotion iblis te jamais au plus grand nga dem ci biir kër Iblis ak waa këram nga dégg ñu tudd fa benn baatu lislaam duñ ko fa wax lijjantiwuñ la. ko wax julli. waaw duñ fa boo ko fa waxee sax dañ naan la sëñ bi ba dem fële ci ko. waaw waaye yow boo commencé wax sax dañ naan bul ma waar. bul ma waar waaye doo am fayda bu koy def bu ko lijjanti waxal waa ji julli ak mbaax yonent bi tabe ga taar ba mu xam loolu mu roy ko joxe doy na nga bàyyee yàlla ay jaamam waaye naan noonu taxaw taxaw ci minbar bi naan ah lii léegi yomb naa yomb yomb yomb ba dañ koy jaay ci boutique yi yaa ngi publicité quelqu'un qui connaît connaît publication ah. ñu xam publicité xam communication xam communication ah. xam nañ ne kii euh, ustaas ñoo fi bàyyi borom ñaari tur ba tey donte man jàpp naa ñi leen doon dugg waaw di leen ci xiir xam nga kii jigéen yooyu nga xam ne dañuy nekk jigéen ba pare. waaw bëgg a nekk ñaari kii. waaw bëgg a nekk ñaari ñuy sëy. waaw xam nga lu ko def. ku jigéen ki. waaw dina bu góor moo koy dugg. waaw seytaane bu góor. waaw moo koy dugg. waaw léegi ku jigéen kale. waaw seytaane bu jigéen moo koy dugg. maanaam ñaari jigéen yooyu nga xam gars yi dañ daan wax ne. ñaari jigéen ñi ànd ba tax tur bi laay bañ a soo ko tuddee publicité nga. mais boo waxee jëf yi. waaw léegi nit ñi danañ xam. danañ comprendre yaa ngi dégg. waaw léegi kii ku jigéen kii ñaari jigéen. waaw kenn ki bu ko ku góor duggee. kenn ki ku jigéen dugg ko ku góor ki buy jëflante ku jigéen ki. waaw mu ngi mel ni nga dama am faru rab rek képp ku am faru rab rek di gént di seey moom rek xamal ne loolu nga ci biir. même même même kii bi la rek même. Eh, contexte bi kii daf koy def ci biti kii di ko def ci biir amul différence Euh, loolu waral ñoom ñuy xeex pour mu pour mu valider ko. waaw ko pour valider ko parce que seytaane moo koy def. alors ab mbiru seytaane la moo tax ñoom dañuy dee pour mu légal pour ñu am liberté comme ça kenn dootul leen dàq ndax buñ ko gisee rek danañ wax ne kii rab a ko jàpp wala seytaane ko jàpp nañ ko faj mais buñ ko légalee. buñ ko légaliser buñ ko légaliser ki koy waxati. waaw ñaari góor yu ànd kenn ki góor la kenn ki jigéen la. ñaari seytaane yu taxaw la. waaw kenn ki góor kenn ki jigéen. léegi nag fenn fu mu am fu mu ko mën a defee mbir mi rek. waaw dafay dafay nekk euh, euh, pëyam ku jigéen kële. waaw fu mu ko defee rek foofa lay doon. mu ngi mel ne tey nga jàpp moom daal na am jëmm ju feeñ rek. rek ñu def ko ca. léegi su boobaa ñoom ci si biir. maanaam ci biir ci biir ñi ci biir ñi ci biir. waaw ñoom ñoom la góor ak jigéen mais ñi ci biti ñaari góor la ñuy gis. Hmm. léegi nag seytaane yooyu nag ñooy taxaw njabootu iblis bi ñooy taxaw nag ne léegi nañ ko légalé nañ ko légaliser buñ ko légaliser léegi ñu liberté kenn dootu leen xëpp saafara kenn dootu leen ñaanlu kenn dootu leen mocc kenn dootu leen dàq kenn ñemeetul leen laal man maa leen laal kenn nit ñi amul nit ak ku mënti doon man maa leen laal dama leen a karawaasa loolu kenn man fekkee naa ko ba ñu tuub ka nga xam ne jamono yonent yàlla lóot wax kooku sax jamono ji njëkk ji laa bu njëkk ba nga xam ne ñu ngi fi doon am. waaw ñooñu léegi kay kenn déggatul leen. léegi li may jox misaal comme nit ñi. waaw mooy xoolal àddina bi léegi ni mu tekkaarale xamuñ lu ko waral ba tey. waaw instant bi moom mu ngi ne tekk. couvre-feu yi ñuy wax nii. waaw dañuy jàllawaat nit ñi ci jikko la force président bi koy joxe sax xamuñ sax ma koy joxe. couvre-feu gars yi kenn la couvre-feu la war a dem tëddi. ci yoon ndax mu teel a yeewu. xamul tax guddi nit ñi ñëw dugg ci àddina bi loolu mooy organisation bi guddi nit ñi dañoo dugg biir kër yi toog ñi jaamu yàlla jaamu yàlla ñu nelaw nelaw fajar ñu eew julli bëccëg jinne yi rangé guddi moo tax dox ci guddi yi yëpp ay seytaane lañ parce que seytaane moom moo koy xam. waaw li kay ku ku lii ku ko xamul mënoo ko wax. voilà léegi nag l'islam bi nag moo jëlaat relève iblis daanu na. yaa ngi woon ci lislaam ci doomu aadama bi. yaa ngi dégg lislaam doomu aadama yaa ngi woon ci zakat. zakat zakat nag mooy jël sa alal joxe ko boo jël alal li nga denc nga jël ko joxe ko loxo moo koy def joxe loxo koy def. waaw moo tax lislaam bi ci jëmm ji mooy zakat ci jëmm ji. Hmm. mooy loxo. Hmm. boo demee ca bopp. waaw mooy bakkan ndax bakkan day aspiré denc bu toogee tuuti mu génnee tuuti garab yi dundee. léegi nag ajjul bayti laay xaraam mooy tànk. tànk yi wax naa ko sànq. waaw nopp ko defee ca bopp. waaw mooy fa mooy fa nopp. moom mooy dem di dox yi di dem. dox yi di dem di indi léegi nag boo toogee fii. waaw lu nga teel ci biti nga dégg ko. te yaa ngi fi toog. yaa ngi nopp mooy dem jëli ko parce que tànk la. loolu mooy lislaam bi. Mhm. lislaam dafa ànd ak Muhammad moo ko indi. sallallahu alayhi wa sallam lu tax moo ànd ak Muhammad. waaw parce que miim. xaram mhm. dellu. miim deel moo tax ñu yónni ko Muhammad moo tax ñu ne lislaam Muhammad a ko moom Ibrahima mënuñu koo génne ci nit déedéet déedéet. Moussa mënuñ ko fee génne. déedéet Mouhamad rek lañ ci mën a génne. da ko moo tax lislaam bi Mouhamad a ko moom. tigi leer na naññ. macha allah da nga ciy teg sa loxo. teg ci sa bët. Mhm. bu la neexee laal ko ak sa la wax ko ak sa làmmiñ. waaw comme ni comme ni ni ko alxuraan jàngalee. soxlawul nag dem di jàngi ay téere rek. waaw parce que dañoo tënk nit ñi tënk nit ñi. tënk nit ñi dañuy sonal nit ñi tayal loo leen ci jaamu yàlla parce que texte yi bu bëree rek. complication bari jaamu yàlla yi sax complication am. waaw nga teyal bàyyi parce que da nga naan danger la pour ma def mbaa bu ñàkk a def du ma ci xam kon xaaral ma bàyyi la. bu nangu wala bu ñàkk a mën naa def yàlla nangu. wala ma def yàlla du nangu ñaan a gën a compliqué yàlla na boo ñaanee rek ma may la. Euh. ma may la ñaan ma may ma may la amul. ñaanee ma nii ñaanee ma naa li ngay ñaan yàlla xam na. déet gaay gaay boo ñaanee yàlla moom àddina nag moom moom àddina ma ñaan yàlla moom addinam ñaan moom ma may la la wax. waaw ñaan waxul bu ñaan lii mu wax lu mu gën a compliqué julli. mais gars yi ne dañ ko jël saraako naan nii ngay ñaanee nii ngay defee. loolu yëpp complication iblis la. l'islam yàlla dafa yombal yàlla na ah. yombal leen bu leen jafe. jafe loolu yonent ma ko wax. yonent sallallahu alayhi wa sallam moo wax loolu. léegi yàlla moo wax yuridu yuridu laaw yuridu laaw bikumul yusra wala ah. bikumul xasra. Mhm. wala yuridu laaw bikumul xasra. Ah. léegi. yàlla yaakaar naa loolu lañ lay jox. la waaw bi kumul yusra wala bi kumul yusra léegi yàlla yàlla léegi léegi fii li nga xam ne. moom mooy yéen dànkat yi fii li nga xam ne non dañuy waxtaan bi dafa dem ci ñaari point si ñu jàng ak ñi di jàng ñoom ñaar jàngul moom. dañuy xool. waaw gis. maanaam yow moment bii ngay waxtaan ni yaa ngi waxtaan ak ki jàngut ba tayal ne defe na ne moom ñàkk jàng war na koo permettre ba warut wax. ak ki jàng ak ki jàng ba bëgg a xeebaate. ki jàng ba war a xeebaate. Mm, moom mu dem gëstu li nga jàng dafa ko a revoir. vérifier waaw dañ ko ndax fondement bi dañ ko war a sulli xool tabax bi ban lan la attan. léegi naka la ñuy def. Uh-huh. ba hadis yi nga xam ne nii mu ngi ci biir muslim. yi ci buxaari ci tilmis yi abo daawuda <laughs> ah. téere yooyu noonu yëpp nga xam ne gaa yi ñu jàng nañ ko ba maîtriser ko comment soo xoolee waa ko iblis waaw alxuraan du ci mépp de foofu rek lañ jëm wala ñu koy waxata dañuy bañ waaw alxuraan moom rarement nga dégg ñëw alxuraan moo jàngale yonent yàlla Musaa yonent yàlla Musaa ko laajee soxnaam mooy kan waaw nu mu leen wax kaana kaana xul ko quraan jikko mooy alxuraan waaw gars yi dëpp ko ñu ne ah. jikko yonent yi mooy alxuraan. waaw déedéet. ah yonent bi. Ah. ñu mooy alxuraan mooy alxuraan. mooy jikko yonent bi. do yonent bi mooy ah, wax ne moom mooy jikko yonent du noonu. bi mooy jikkoy alxuraan. waaw yonent alxuraan bi alxuraan ki mu jàngale. waaw mooy yonent bi. sallallahu alayhi wa ndax yonent mooy jëmmi alxuraan la jiy dox. moom mooy moo tax jikko yonent bi mooy alxuraan. loolu la gars jaaraat ci ma dégg. jikko yi da dañu ne ko kaana xuluqul Qur'an. waaw jikko mooy alquran. waaw déedéet. alquran la. moo tax la. waxu yàlla dëgg la dëgg la waaw kuy jikko yàlla mooy tam bi. Uh-huh. ku nekk am nga jikko di. jikko yàlla mooy yonantu bi. kan la kon jikko alquran mooy yonantu bi. alxuraan mooy dëgg yàlla mooy dëgg. waaw waxu yàlla wax alxuraan waxu la. waxu yàlla la waxu yàlla la. waaw waaye waxu yàlla du mooy yàlla. waaw yow sa ji du yow. waaw léegi sa ji. waaw la mu jàngale. waaw mooy mooy yonent bi. kon jikkoy alxuraan mooy yonent yàlla yàlla mu sallallahu alayhi wasallam dara. teef. tigi koy mën a jël léngaleel leen dëppaleel leen ñu bokk yàlla yonent yooyu ñu mën a séparé wu nekk fii kii nekk fii déedéet yàlla mosul def loolu ay ah, yonent bi waaw buñ ne mais eh. boo ne jikkoy alxuraan mooy yonent bi kon delloo nga yonent ci biir yàlla ça veut dire que yonent man sama jikko mënumaa rëcc alxuraan mais su fekkee ne yow yow yaay sama alxuraan boo xoolee alxuraan lépp yonent la jàngale yonent la jàngale. kese mooy moo tax jikkoom mooy ak mooy yonent bi. nettali gi ne gi nettali xibaar yonent yi jiitu woon yëpp. yëpp yonent loon jàngale. pour yonent di. kese mbaa yërmande mooy kan. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yërmande yàlla. yërmande fu mu bokk du ci yàlla ku yërëm jàng. yàlla aywa. te jëmm ja mooy yonent bi. mu jeex na. waaw ah, muy jëmm yërmande lañuy wax de. jeex na xay na rahmati rabbaani boo demee ci dawal kamal. waaw Cheikh Tidiane nga ko fay jàngale. lu mu wax xëy na rahmati rabbaani wal yaa xootatil xëy na rahmati rabbaani ci xëy na rahmati ah. jëmmi nga xam ne ah. rabbaani yi mooy côté borom bi waaw seexoteen <laughs> di la delloo la ko ci yonent bi moom leeral na ko leeral na ko nañ kon mbir mi dafa leer mbir mi dafa leer ñàkk tawféer gi moo waral li nga fekk ñuy jàng rek loolu ngay jàng est-ce que doo def sekantal afala taaxiloon waaw yaa ngi dégg. afala yatadabbaruuna al-Qur'aan am ala quluubin aqfaaluhaa ah. waaw loolu moo ko indi. def seetantal leen al-Qur'aan. waxut seetantal leen téere xam-xam yi waxut seet mais est-ce que nekkut seetantal googu moo moo moo poussé. programme Iblis la. Iblis gars yi bi ñuy wax. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gars yi dañ koo bañoon bëgg tudd turam tuddee ko mu zammam parce que bu ñu ko waxee Muhammad day feeñ parce que Muhammad moom mooy jëmm mbindeefu yàlla yi. te bu ñu ko waxee tur bi génn. tur bi génn gis ko. kon bëgguñu lañ war a tuddee ko musammam parce que bëgguñu ko jàngale léegi musammam lañ jàngale hadis yu bëri mu xam musammam lay jàngale te man li ma jaaxal mooy njàng mi ni mu bëree mhm. ci la réer gi ëppee parce que kiy jàngale tax te réer lay jàngale moo tax mu bëri te jamono yonent Yàlla moom man ñu jàngoon ñu néew lañ te ñu njub gi ni meloon te njub gi ni meloon parce que ki doon jàngale njub la doon jàngale ha allahu akbar mhm. xeex gi ko doomi doomam yi di xeex mooy mooy Iblis jël gim jël doom waaw dem ca daara ji toog li leen jàngal. di daara ji alxuraan la fa gaa yi di jàng. waaw alxuraan ji gaa yi bëgg ñu jàng. waaw moom lañ fay jàngale. alxuraan sax am na ci laaya yoo xam ne ni ñu ko fi dee. waaw dinañ ko xoolaat. mais euh, mais texte bi moom noonu la. waaw texte yax yax mais bi waaw. yax bi noonu la mais firi yax bi kay kenn mënu ko sax. waaw innaa nahnu nazzalnaa zikra wa innaa lahu laafizuun. léegi léegi. xalaat yonent boobu alxuraan jàngale. sallallahu alayhi yàlla waxoon ne eh, inna laa ya'murukum an tu'addu al a ila ahliha wala maanatu googu kooku lañ jàngale kaaba gi bu ñu ko nangoo sax waaw caabi yi waaw daf ko daf ko delloo gaa yoroon kaaba delloo gi ko delloo ko yoroon caabi kaaba moo ko tax a tur kooku la ñuy jàngale delloo kaaba na gañe la nangu la nangu kaaba gi te dafa ne fi trois cent treize man mën naa tax xonsa yépp xul jaal xaq wa zaaqal baatil kooku dafa ñëw rek gaa yi génn ñu ne nga delloowaat ca xiif gi ak ñàkk gi nga xam ne. Uh-huh. ñàkk lool nañ ko yonent yàlla Muhammad. Uh-huh. yaa ngi sa tolloon ci mbaam ma. ci kër uh, waaw daa fa waaw waaye kii. waaw daa ñëw rek xëy na génn. waaw sallallahu alayhi kenn lii laa qul jaal xaq wa zaaqal baatil. innal baatila kaana zahuuqa sa fa sa uh, fatu waaw léegi nag mu ñëw fekk waa ji mu daw yëg ci kaw kaaba ga. waaw dafa fat turu sax ba mu demee nangu nangu caabi. caabi waaw yàlla def na ko delloo delloo caabi ji seen borom. mu dem delloo ko mu ne ko lii lan la mu ne ko yàllaa ma digal na laa leen ko delloo mu ne ci yàllaa maanu allahu yàlla ji ñuy jaamu ñun waaw daa maanu de yonent bi ñu jég toppaloo dafa topp ndigalam musu ko wàcc musu koo wàcc mooy mooy léegi gars yi wax ne yonent yi dañuy yonent yi dañuy juum loolu loolu ki ko wax sama waay la. Ah. dinaa ko oo. ay ah dinaa ko oo waxtaan ak moom. waaw eh, pour xam ne. ba ne sax ne dana si indi ay. su ma déggalee. waaw mu ko indi. waaw bu mu ko indi ba mu jumloo benn yonent. sallallahu ndax ndi ngay wax nii. si hadis bu ko jumlee alquran dana ko. dana ko gàgloo la ilaha illallah li jëm maanaam daal li nga koy digal mooy bu mu ko def. bu mu ko wax waaw bu mu wax mukk ne yonent yi dañuy jum. non man moom li may wax mooy borom hadis yi. Hmm. nañ def ndànk. ñëpp danañ jàngiwaat. waaw def naa wala danañ seetaan talaat hadis yi. hadis yi hadis yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ku ma ci déggati ñu wax benn hadis. waaw waaw danaa ko wax ci publiquement mu leer. waaw ñu xam hadis yi seytaane bind yëpp ak hadis yi yàlla wàccee ci yonent bi yi jikko yonent bi yonent doon def li yonent doon def. waaw loolu mooy hadis ak lam lan wax loolu mooy hadis yi. ah man kay dinaa commencé dem déglu vérifier jiwaat ay hadis. waaw ah, doon wax. waaw ak lam doon jëf ak lan doon ci kanam mu noppi ci kanamam mu noppi tax. loolu mooy hadis. waa loolu da lay wax loolu mooy sunna loolu lañ ci mooy loolu mooy sunna loolu jarul yokku jarul wàññi sa gis bopp yi doy na la jarul xuloo lii defoon na ko defoon na ko jaru ko jarul xëccoo jamal ci alquran wax ci jeex loolu ku fi nekkoon la nekk nit yaa ngi dégg di jàngale mbaax dem na mais maanaam yi aw fi jóg te mën naa kooku kooku nag mbëggeel la koy jëmbat ci nit mbëggeel kooku tànk bëggoogu du la ganes parce que mbëggeel day wér de te bés bu la ganesee rek nga xam ne ñoom laay la laay laay laaw yenn saa yi ma gis koo xam ne yow boo ko xoolee sax ak jëmmam ak melokaanam ci ni l'islam définir nit koo xam ne jullit la mhm. ci melokaanam rek da nga koy xeeb parce que lu ko waral parce que mu zammam élève mu zammam la day ñàkk day rafle li sol day gàtt day tilib day day day doyee du bëgg daraja yaa ngi dégg ah. iblis am nga daraja yàlla moo koy def ci nit waaw waaw waaw ñoom dañ koy daw naan daraja ak gaaw yàkkamti yooyu yëpp ñu ne iblis moo ko aaye gaaw yaa ngi de yàlla mu a xuluqil insaan min ajal yàlla moo bind doomu aadama ci yàkkamti aywa léegi doo gaaw def jaamu yàlla yi gaaw xër ci lislaam ñu ne la gaaw se kii la gaaw mbiri yàkkamti yëf iblis la iblis parce que boo yàkkamti doo def lu bëri iblis moom moom mu ne ko boppam na yéexee yàlla la xadis yooyu noonu yëpp dañuy tënk nit ki ci lislaam te yàlla bàyyi mu ne axtila obayda buxyatan wa ajila lii bil ijaabati uhibul ajala aywa bàyyi ñes dana bëgg mbir seytaan euh. bàyyi ñes mu ne mayeen jaam su xeebu si càqutefu te nga may ko ci lu gaaw ndax man damaa bëgg lu gaaw lu ne ñu ne ñu ne lu gaaw yàkkamte mbiri mbiri iblis la boo yàkkamtiwul def lu baax def ci lu bëri waaw soo yéexee tayal doo fi def dara iblis mu ngi lay raw te affaire bi kursu la kursu kay ku gën a gaaw lañ soxla waaw mais comme dañ la bëgg a nelawloo dañ lay wax a gën nga defee nga yéex ma tax dangay gis arab la moo ko doon def ma tax dafa dal dal nag ak yàkkal ni bokkul de ah. dal mooy imaan <laughs> xol bu dal xol bu dal waaw mooy boo demee ci liimaan waaw da nga fay mooy tumaani natu mais du si jëf fekk surtout ixlaas tumaani yàkkamti def lu baax. ak yàq xër xëral ci xëral jaam yàlla yi jaam yàlla yi xebaa ah, <laughs> léegi jàngal nga ñu lislaam ci doomu aadama bi ba mu nekk jëmm ju taxaw nga xam ne ni nit. jàngal naa la lislaam waaw ah. buy dund bi buy dund. ah lislaam bu dee bi ñu def ci téere yi. waaw lislaam bi dund te yàlla yónni ko. waaw. waaw pour l'humanité waaw ne ko wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas waaw xam nga léegi daj nañ waaw nit ku nekk rek am nga lislaam am nga lislaam kon yonentu yàlla bi yàlla yonentam yonentu yàlla saa yonentam gi mat na waaw am nañ bopp waaw am nañ tànk am nañ loxo am nañ biir am nañ xol na boobu man na sëkk kon xam nga wax leer na ne ko nag dama laa yónni ci ñoom nit koo gis am na bopp bopp mooy waaw ku mooy yonentu boobu jàngale waaw yonentu ku nekk da ngay xam ne yow a kon fonk nit dana bañ boppam. déedéet kon ku ne da nga war a bëgg sa bopp bëgg sa bopp mooy bëgg yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam waaw. leer na. naññi jege na la. waaw yow yaa fi. maa ngi fii. li yaa ngi fi yaa ngi fi. waaw léegi rayal Muhammad noo koy rayee. mu kenn mënatu ko rayee kenn doo ko mën a rayee nag Muhammad kenn boo gisee ku nga xam ne da nga naan daf koo bañ sax. mënu koo bañ bañut ko. mënu koo bañ dafa réeree. da réeree moo fi nekk. voilà moo tax waa jàppoon kañ jàppoon ni ko ci bàyyi na ko bàyyi kii mooy ki la Muhammad bi nga xam ne moom mooy Muhammad bi nga xam ne moom la ñuy jàngale. waaw mooy Muhammad bi nga xam ne ku nekk moom yow a mooma. dëgg la benn benn seconde. moo tax kii euh, sëriñu euh, Buseyri. waaw. Abul Masir. Euh, Abul Abul Masi. Abul Abbas al Masi xefoon rek benn yoon gisuma yoon bi. Ah. ma lim si ma bopp ci éveil. wax na dëgg parce que mënut a ñàkk gis boppam bi. maqaama boobu de ràngal nga ko képp kuy julli képp ku rek xam nga ne mënoo ñàkk ci yonent benn instant. boobu dafa war a feeñ ñu gis ko yonent boobu fàdduwul demul fenn kenn mënut a ñàkk gis lu dul yonent bi mënut a ne gis lu dul bi kay moo jommale. waaye gis yonent bi moom du jafe wu nekkatul njombe tam parce que la bi gaa yi dencoon génne naa ko. <laughs> allahu akbar fi mu toll nii de su ma la waxee dëgg. Ah. maa ngi fees dell kon nañ ko tëj. waaw dell dell dell dell askan léegi nag li may dénkaane waaw mooy léegi désormais doo dénke euh, ndax loo dénk gars yi kii ko li may du bëgg nga waaye waaye li may li may continuer sama wax bi pour yow sa jotaay bi ñu yemale ko bu suba li il yi yàq gars yaay ñi dénk ñëpp dañ ko yàq na yàqal seen ginnaaw parce que après danañ danañ waaw waaw waaw danaa danaa leeral sos yi sosal mag ñëpp ci gën seen ginnaaw waaye noonu balaa ñu siy def dañuy leer lu continuer si yonent bi ndax la nga doon wax si xiif gi jeexul waaw waaw te loolu war nañ ko continuer mais dañ ko laal suba waaw léegi yonent bi salaa salaam waaw ne la euh, euh, mësta rafle waaw mësta xiif waaw Seydina Ababacar Sadiq waaw ba yonent laajee na lañ joxe euh, seen xalal yi waaw bi mu joxee ba dese abaayo abaayo waaw mooy yërëbu benn yére benn yére bu mu soxla malaayika yi sax dañoo dem sul ay yére noonu Abubakar malaayika yi wane ne rafle fii du fi am lislaam du am rafle benn yére la defee moo la malaayika yi malaayika yi al yàlla yi bind waaw sol yére noonu Abubakar ne ko rafle amul lislaam lislaam amul ñàkk pour dëggal rek ne lislaam amul ñàkk amul ñàkk suñ ko toxalee fii mu toxu fële lislaam amul ñàkk lañ eewoo xam nga suba il faut que ñu waxtaan ci wàll hadis yi nga xam ne dañ ko dañ ko noyeelee lislaam dañ ko diisalee dañ ko noyeelee l'islam mooy ñu diigalee ko islam diigalee ko islam ba képp ko xam nam mu ngaa tax taxaw ngir défendre l'islam sax doo am fit wi. moo tax ma defaa ma seetaan ay ay waaraatekat ñuy waaraate de temps damay gis sama temps di leen déglu de A à Z damay gis seytaane bi toog di waar nit ñi te moom muy waaraat du ko yëg émission bi di jeex lay rocceeku. bàyyi ko foofu bu bu rocceeku koy gis. te mu ngi jàng ay hadis yu leer yoo xam ne daf koy mokkal nekk borom xam-xam ñëpp yaakaar yow sa waxtaan yi ngay waxtaan yoon la te wareef la ci télévision yi nga ne man fu ma toog seytaane toog fa ah? mën naa ko xëcc ci waaraatekat bi waaree ñu ñu paratoo rek ba moom bu génn mu ma wane leen seytaane kii mooy wax ci waa ji su ma ko dàqee mu dem waa ji ñëw day wax ne yëguma sax bi may ñëw ci plateau bi waaw mën naa loolu man parce que yow ñuy waaree ci télé yi ku ku ci ñeme rek nañ ñëw ku ñemee rek nga ñëw boo ñëwee. waaw seytaane bi la tiir. waaw daal laay génnee ba mu toog. mu wax fi la jàpp waaw fi la dugg waaw ba ngay jàng ca daara ja. ba bi ngay tëri. ba bi ngay ñëw ci mu dem yow ñu indi nga dellu si. yow si doo yëg ni ñëw nga ci. ah waaw. bu garaaw. ba tax li may wax dama koo xam. kon. danger bu fekkee nga fii. waaw waaw ne nee bu ma gënee gis. ba mu ñëwee Ndofane la. waaw te booba 5 ans la am def na te am na 30 ans 25 ans xamut ne moom mooy moom. waaw man fekk na ma fi. ma delloo si ko. waaw maanaam denc ñu moo xa nit ki dañ koo jëloon denc. ko 25 ans. kon il faut que ñu def attention si waarekat yi nga xam ne ñu ngi toog leen déglu. képp ku leen di waar. waaw di leen wax yonent boo xam ne da ngeen koy jàngi. waaw bu leen ko il faut nga dem ci téere nangam. waaw kay dem ci hadis nangam nga ci téere nangam. déedéet kooku du Muhammad bi yàlla yónni. Muhammad bi yàlla yónni dañ lay wax nga demal sa bopp yow fekki ko faf ne wax ak moom wala nga bëgg ko waaye yonent bi ñuy jàngale ci ay téere yonent boobu amut di déedéet ah tënk nañ ko de tënk nañ ko tëj nañ ko tëj nañ ko te défier naa tous les borom xam-xam du monde waaw défier naa leen ñoom ñëpp tout bàyyiwuma sans exception loolu borom xam-xam yi ñu ngi koy déglu rawatina waarekat yi mhm. nekk ci télé yi xaraam dagan xaraam dagan yépp laa wax ñoom ñëpp a ngi lay déglu. ñu ngi may déglu. ñoom ñëpp a ngi lay dégg. ñëpp ñu may dégg. waaw. xam nga déggoo xam loolu du ma ko wax sax c'est pas important. baax na kon li may wax daal xam nga mooy. waaw yonent yàlla Muhammad. xam alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. waaw danañ ko dund. Uh-huh. danañ ko bëgg. muzammam waaw danañ ko fi jëlee. suba dañuy continuer ci wàllu xiif il faut que ñu waxtaanee rafle gi ñu rafle loo yonent bi. di ko jàngale moom la ñuy gàmmoo. wéykat yi bu ñuy wéy moom la ñuy définir. wéy ko ki nga xam ne moo jiite. waa su ko mbëggeelam poussé. waaw bañ nax ko ci mbëggeelam. waaw ka ko topp loolu lay jàngale. loolu lay jàng te loolu lay jàpp ne it mooy dëgg. moom mooy lay jàppale it mooy dëgg. mais bu demee ba yàlla ñëw ak mbiram. waaw leeral am. waaw bu boobaa dañ di seetantal. te boo seetloo wax bii nga wax. dafa tiñ ci képp ku tënku woon. Ah. ndax kenn ku si ne. tax dañoo war a libéré dañoo war du borom xam-xam rek moo war a wax wax mooy yàlla yàlla yàlla kii yonent sallam dafa ne benn aaya rek waaw boo ko mokkalee waxal tënkul kenn balliqoo anni wala aayatun waaw benn aaya tax ñu ne la yow pour nga wax ci yonent bu dee yàlla moom benn rek mën nga ko def bu dee yonent moom il faut cent vingt quatre mille te cent vingt quatre mille kenn ku ci nekk di nga xam wax bi fu mu duggee di nga xam sanat bi di nga xam ko ko wax kam ko wax ko wax ko ko wax ko ko wax ko ko wax ko ko wax ba ci yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi soo ko nangu musiba gën a ko rëy tàdd nañ l'islam la bu rëy rëy rëy rëy. l'islam booy wax waa ji sax naan ko Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad ba mu bëgg ko baax na. promotion la. wax la nañ dox nit ñi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waaw parce que boo boo si si euh, euh, comme nit bu amee ennemi. waaw ci kanamam. déedéet eh, rek mooy sax amal nga ko. fa. Ah, loolu indi waarekat yi seen waare. Mhm. tout le temps mbon mbon. mbon mbon mbon mbon seetal li xam ne iblis moo leen sonk. waaw ay sexe rek la ñuy jàngale. waaw mbon rek. sexe waaw ak mbax nga anam. li nii dañoo war yaa ngi waxal. man gis naa benn imam boo xam ne mi ngi doon wax si koo xam ne imaam yi. dañu leen dañu leen faxatalu rek. dañu waaw imaam mais. da ngay wax benn jiitekat rek benn jiitekat. boo yaa ngi xas. imaam bi li muy représenté. présentation waaw ngay wax benn njiit rek. benn njiit bu taxaw ci benn ci barabu julleekaay. Mm-hmm. di wax ci nit koo xam ne moom toog na si boppam. Mm-hmm. mu wax ne moom lu muy wax concerné wut doomu aadama. Mm-hmm. mu toog di waade ci kooku. waaw mooy mooy kooku waxtu woowu kanoon wax ca waaja. waaw moo toxu ca waaja dem ca imam ba mooy sa mooy kii euh, waade waadekat boobu léegi dafa waar ñi mu toog ñi toog mu leen di publicité boppam. mais gars yi amuñ capacité xam ne gars yi am nañ possibilité nekk fii léegi jugee fi dem benn dëkk léegi. waaw de jiite fa jumaa. léegi ñaanal la askan bi. te nga wax leen nan la ñuy def. li ñuy def daal mooy. pour mën a jotaat ci Mouhamad bi Mouhamad boobu mu wax nga leen ko. Mouhamad mais nan lañ def ba yeewu ci waxkat yi. xam nga lu ñuy def. waaw mooy seen MP3 yi. waaw nañ ko def ci seen boutique yi. waaw seen atelier yi. waaw seen restaurant yi. seen lépp ñu del MP3. waaw téléchargé ci kaamil alxuraan. waaw ku nekk rek nga fexe. waaw chaque jour. waaw benn nga nga play alxuraan bi. waaw ci ci ci sa wet. waaw muy wax ca kaw. waaw demi na waxi gars yi. waaw chaque jour. su booba jant chaque jour nga am benn kaamil. su booba jant so. su booba jant so. ah ku ko def de ba da nga boo jàng. léegi su ma yee dëkk bi yëpp waroon au lieu nga de kundum kundum kundum kundum. waaw ngay dégg xaala yaa ayuha nangam nangam. waaw bu yàggee rek nga gis ibni dootu fa xajati. waaw ndax ndax. ba mu bëggee installé moom. foo tourné ay kundum kundum kundum kundum rek rek loolu askan bi dégg nañ la. nañ def loolu rek pour pour pour essayer. ñun ñëpp bokk nañ la déglu. voilà dégg nañ la. Mhm. te danaa joxe suuf boo xam ne. waaw dañuy def ñun ñëpp statut. waaw dee na. léegi Mouhamad jël na ndam. moom man maanaam ku d'accordal Mouhamad saa si rek. ne Mouhamad gagné na nga def statut. aujourd'hui l'islam gagné na Mouhamad Iblis dee na. comme ça ñu wane parce que bataille la. waaw léegi xeex bi nekkatul ay bomb. waaw nekkatul biologie. stratégie la communication fa la fa la bataille bi toll. dans dans l'interne ci biir. waaw xeex bi stratégie la ak communication. mais léegi bu njëkk ba arme la woon. waaw tukkee na ci arme ñëw ci biologie. waaw moo tax mu am perturbation. mais biologie yàgg na bi xeex biologie di rey gars yi di def ay feebar ay yooyu yàgg na bi mais bi mu nekkee ci fin de carrière ci ko génnee. mu am perturbation am coow. mu ngi ci léegi nag communication ak stratégie. moo nekk ci biir moo war a génn. léegi nag ni ñuy defee communication mooy dañuy def ci suñu semaine bu nekk ajjuma bu jot. ñun ñëpp ñu bokk mango rek. waaw ajjuma bu jotee ku nekk nga def sa statut. Mouhamad kii. la ñuy Mouhamad Mouhamad gañe na. Iblis perte li ñuy def si ay juma mubarak. juma juma mubarak. waaw nañ ko teg nële. ñu def lislaam gañe na. waaw gañe na. Iblis daanu na Iblis perte na. ñëpp ñu ngi lay déglu. nga euh, euh, vie yi macha allah bari na euh, askan bi nga ñëpp ñoom amoon nañ amoon nañ. naqar léegi Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam li fi nekkoon. waaw moo jàngale woon bëggante. waaw. mbëggeel gi gars yi di wéy. waaw Muhammad moo ko jàngale woon. waaw léegi mbëggeel dañ ko. Iblis amul la dañ ko war bëggante ma ma bëgg la nga bëgg ma ñu ñu éliminer ay ay waasoo. ay PT yooyu yëpp ñu effacé ko. ay tarixa non tarixa duñ ko indi annulé parce que tarixa mooy yoon. yu nga war a demee ci yàlla doo ko indi doo ko annulé. baax na parce que dama tënk pour nga bañ a dem kër Iblis. baax na hmm. comme li ma benn jinne waxoon. waaw bi ma ko mu ne ma moom moo àndoon ak euh, bokk na ci ñu àndoon ak Ben Laden. Ben waaw waaw. mu ne ma fekk ñu ngi lal mbalaan wasifa. waaw mu ne ma mbalaan bi ngeen lal nii. waaw ba ko tuubalee ba pare ma bi ngeen lal lan moo tax ngeen lal ko. waaw mu ne ko dañuy wasifa mu ne ma a am na ci sunna. waaw ban hadis ci la ñëw. ak ci ban laaya. waaw mu ne ko ñëw na ci laaya yëpp ak ci hadis yëpp. waaye ñëwut ci texte. waaw boo xam ne da ngay dem mën a texte bii ci lañ ko wax. mais dañ dafa tas ci biir texte yi. waaw mu comme ni nga xamee ne. waaw jékki nga jékki rek am njàqare bu tar. waaw nga jékki-jékki rek soosu daal la. waaw dem sa jàkka ja wala nga dem sa néeg. waaw talal sa loxo ñaan yàlla. waaw jug gi nga jug. tey yow. ci waxtu wi. waaw ak yére yi nga sol. waaw ak soxla bi ngay ñaan. waaw ñëwut ci benn waaye am soxla ñaan ko yàlla ñëwee ci texte. waaw ma a ko noonu la demee mu ne ma est-ce nga maa jox tagata. Eh. ma ne ko waaw. yaa ngi dégg. waaw parce que noonu la gaa yi war a jàngale. parce que lu lu nekk dañ lay laaj texte bi. waaw léegi texte yi nekkul texte yi am na yu ñëw. mais bii dañ koy soxla fële. waaw ñu yóbbu ko fa. waaw bii ñu soxla ko fële yóbbu ko fa. léegi si sa capacité ci ngay nekk ci ngay amee. bu nekk nga mën koo jëli indi comme ni ñu def saa su fàttee baat bu ne am indi. bu nekk mën ko rassembler ba mu nekk saa su fàttee mën koo jàng ci benn kii mais ñu ku jàngal quoi baax yi ci biir l'islam ma ne ko nag bu fekkee ne comme li nga xam ne mooy formule bi ñu koy defee nii. waaw ma ne lislaam bi mu ñëwee ci laa ilaaha illa Muhammadu Rasulullah li njëkkee ñu gis ne yéeféer yi laa ilaaha illa Muhammadu Rasulullah yomb na hmm. mën nañ koo wax su hmm. fekk luñ ko gëm bu ko wax te gëmoo ko naa fekk nga mooy naa fekk mooy hmm. ñu gis ne yaa ngi affaire yaa ngi bari amatu sécurité yàlla wàccee julli yooyu isaa xaamoo salaata xaamoo kusaala julli ñëw mu nekk lu diis ci ñoom mënatuñu julli parce que julli ay acte ay fee la yoo xam ne boo koy def te gëmoo ko du la amal def ko li ñu indi koor xam nga borom alal joo xam ne ay xëy xëy lekkoo daanoo jege woo sa jabar mm-hmm. te tiri siri rek moo la ci a mm-hmm. ñu dema dema dem ba gis ne kon l'islam commencé di multiplier di egg ci seen territoire yi mm-hmm. ñu ne kon léegi que na ko ndax liñ nar a ñàkk ñu dem ba dema dema dema dem ba yàgg ñu indi asaka génne sa alal loo xam ne yaa ko moom mu légal la ñu ne da koy génne jox ko koo xam ne da nga ko doon jàmloo mu wéram loola ñu sonn ñu dem ba yàgg ñu ne aha ah, buñ ko defut liñ jot a am sax liy des sax koy ñàkk kon nag dañ ko def moo tax bi yonent Yàlla sallallahu alayhi hmm. ah, a la dootuñ ko joxeeti waaw parce que mooy bi la a intéressé dee moo ko gënal waaw wa aqime sala foo ko teg ak ato zakat mooy jëm si kanam ku ko daaneel rek ma rek ñu ne ko déet yonent bi Yàlla da ko waxoon ne ko ku wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah gore nga gore sa alal waaw yéen mu ne dee moom moo xeex Seydina Omar Seydina Omar xam nga taxaw dee nag duñ ko duñ ko ma bañ. parce que yi. waaw joxe seen alal dafa dis si ñoom. mais ñu ngi koy joxe ndax yonent mi ngi taxaw seen kanam. waaw bu ko defoon ñu raay. waaw mu dem ñu bëgg koo sooxal. ñu bëgg koo sooxal léegi ñu aj màkk léegi nag buñ commencé joxe seen alal. waaw màkk aj màkk ñëw ngay ñàkk may ñàkk ngay buur may may baadoo. waaw ñu bombante ay ñàkk. <laughs> <laughs> loolu xam nga bu la ko tricher nga lay def doo ko def. déedéet léegi sax boo demee màkk sax borom alal yi bu gaaw bu aj jotee dañuy génn dem Dubai dem ci leen réew yi parce que dañ naan dañuy tiiriwal màkk. loolu mooy lislaam. waaw. est ce yaa ngi xam bu baax li ma leen. maa ngi xam lii nag moo indi euh, tariqa ma ne ko nag léegi bu ñu demee ba ba ñu demee nag ba ñëpp ñuy jaxasoo nag. ñuy hmm. aj gëmuñu ko. Hmm. Hmm. lépp ñu koy def. yéen yéen ci asal ubbil leen porte tariqa. léegi xam nga toog di tudd yàlla. waaw suba ngoon obligation la. waaw par la force nga di ko def. ah saa waaye bu fekkee ci risé rek moo la ko tax a def doo ko def. doo ko def de boobaa doo ko def. moo tax ma ne ko nag porte boobu ñu ubbi ci tarixa waaw pour rawale jullit ñi gëm yàlla moo tax ñi gëmul yàlla yi parce léegi gars yi takk boobu dem ci jàkk yi. Mm-hmm. moom effectivement boo nga def. Mm-hmm. ma jox ko tarixa te la te bokkoon na ci ñu ñu doon ànd ak ànd ak euh, benn leneen ci jamono benn leneen la mu doon dund ba tey. allahu akbar kon nga gis l'islam bi. waaw gars yi ñàkk dégg gi ko ñàkk dégg. moo indi mu am problème rek mais lépp ci l'islam la bokk. l'islam daal tur bi. dafa défi bidaa bidaa bidaa ci boppam xam nga ko waxtaan. bidaa a ba nga xam ne hadis boobu dañ koy génne ci islam. bidaa waaw. hadis boobu di wax képp koo xam ne sos nga loo xam ne bidaa la. safara nga jëm. waaw incha allah kon. dañuy joxaat nit ñi beneen daje suba dig leen beneen daje ci kàttanu yàlla ci kàttanu yàlla incha allah yal na yàlla boole fa tawfiq wa salaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf